alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa ala xayri xadimihi dhi alhabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmi ddin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 yàlla na ko ci defal te defal nu lam diggee woon ci xaaj bu njëkk ba te mooy yërmandeem waaye àggale nu ci xaaj bu mujj ba te defal nu lam ca digg te mooy gore ci sawara di tàmbalee ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba suñu borom gën ko fee yàggal te gën a yokk bi wëram ba mu àggale yéeneem ci liggéeyal Cheikhul Khadim di ko ñaanal mboolem jabaru Serigne Touba gépp di ko ñaanal suñu bopp itam nun taalibe am mbégte bu baax a baax dellusiwaat fii ci seen plateau spécial yi nga xam ne moom lañ leen baaxoo defal ci weeru koor gi ñu ñëw ci sunu ñetteelu jotaay tey tolloog fukki fan ak juróom benn ci weeru koor atu 1443 ci gàddaay gi tolloog le 18 avril 2022 ñu fas ci yéene ànd ak borom xam-xam di kilifa di ko xam ne yàgg nañoo ànd ak mooy jataay waaye di ko ñu xam ci dëkk bi itam di sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Xamsatu mu sëriñ Abdul Ahad ni ma ko waxee di borom xam-xam di gëstukat di ko ñu xam ci yoon wi waaye ñu feggoog itam sunu mag sunu wëllëre sunu xarit sëriñ Ousmane Diouf jàngkatu xasida di ko ñu xam moom itam di ko ràññeeku ci dëkk bi ci am njàngum xasida mu rafet te neex lool kon ñoom ñaar lañ fas yéene àndal tey ci suñu sunu jataay bi tomb bi ñu war waxtaane nag war ci ànd ak Serigne Saalih mooy alwasatiyatu fil islam ak cheikhul cheikhul xadim namudajan maanaam lislaam doon gim doon diine yi wasatiya wasatiya mooy digg doomu xam naa Serigne Saalih dana ci ñëw waaye mooy digg doomu maanaam bañu a ëppal bañ yéesal lu tubaab di équilibre ak nag loolu sëñ Tuubaa doon gi mu doon exemple ci loolu sëñ Tuubaa mi nu yaakaar doon gi mu doon exemple ci loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy tomb bi ñu war a waxtaanee incha allah dinañ ci ñëw Serigne Saalix ci gën a yaatal xam naa balaa ñoo gën a sori ñu jox ko kàddu gi rek moom Serigne Saalix mu nuyoog mbokk yi soo defee ñu jox Serigne Ousmane mu nuyoog mbokk yi ñu door a tàmbali waxtaan incha allah Serigne Saalix bisimilah. bisimilah rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi wa ummati ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy déglu dañ seetaan fi mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ziyaare bu baax ci weeru tedd wi ñu nekk shahru ramadanul mubarak hmm. di ñaanal a seex Mouhamadinil Mountakha mm-hmm. fan wu gudd ànd ak wér mm-hmm. ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gépp ak mm-hmm. taalibe yëpp ñu ngi lay am nuyoo Serigne Mbaye Thiam tey sant bu baax ci jotaay bi nga xam ne yàgg nañ koo amal muy tasaare xam-xam tasaare njàngalem Serigne Touba ak yéen nit ñi ak jàngaleen seen diine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 di leen baalu àq bu baax te di leen ko baal di ñaan ci daraje sëñ Touba yàlla na suñu borom boole jéggal ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu boroom guddal aw fanam lool te waral ay cëram ba naal yi nga xam ne moom la naalal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mm. suñ borom dëbb ko kàttan ba mu àggale ko naalaat yeneen àggale ko tañ ànd kook moom eh, di leen nuyu yéen itam bu baax ci jataay bu rafet bii hmm. nga xam ne yéen ngi ko jël di ko def ci weeru koor wi hmm. ni ko waxe léegi ci bi ngay tàmbali sa kàddu rek hmm. weer wi di weeru njéggal di weeru yërmande di weer woo xam ne day goreel nit ci sawara yooyu yëpp yàlla ko suñ borom defal di ziar baax Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne moom itamit moom lañ koy defee fii ci daaraam hmm. di suñu wala réew mu bu yàgg hmm. boo xam ne xasida yi moo ñu boole di ziar baax sëñ Basiru meetam hmm. nga xam ne moom ku ko xam yàgg ko xam ci yëngu yëngu sëñ bi wax dëgg yàlla euh, noonu su ko limee mën na mën naa topp ñëpp kenn ku ne ma ma jaar sa tur waaye comme mbirum ay waxtu la ak minute xëy na dañuy tënk dañ koy tënk foofu rek li des maanaam ñu boole ko mboolem koo xam ne rek yaa ngi seetaan jataay bi mhm. di ñaan tamit kenn ku ci nekk loo ci dégg mhm. muy wàllu waxtaan wi wala wàllu xasida yi mhm. lu mu ci mën doon rek yàlla na fekk lay sag bëgg rek mu defal la ko ci daraje sëñ Tuubaa ñu ngi baalu ñëpp ak te di leen ko baal di ñaan suñ borom yàlla nanu suñ borom boole jéggal macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ Ousmane ci nuyoo yooyu Euh, ni nga ko waxee rek macha allah rafetlu nañ bu baax baax kàddu yi xam naa kon sëñ Saalix dañuy euh, dellusiwaat ci yow tomb bi ñu war a waxtaane ni ma ko waxee woon mooy léegi al islam diinun wasatiyun wala al islam diinul wasatiya maanaam l'islam doon gëm doon diine digg doomu ak sëñ Tuubaa ni mu doonee exemple ci loolu waaye fi ñuy njëkk a tàmbale rek mooy laaj la bu ñu waxe baatu wasatiya te mooy mooy mooy digg doomu googu mooy lan lan lañ jublu ci baatub alwasatiya hmm. Hmm. waaw asalaamaaleykum min jadid hmm. jërëjëf sëriñ Mbay Caam dafa mel ni li ñuy wax exposition lay doon rek waaye du doon waxtaan ndax yaakaar na question bi ñu bari xam nañ ko waaye dañ koy fàttalante xam nga lislaam waxtu wu nekk dafa ñëw ngir ñoŋal dunduk nit ci kaw suuf loolu nag euh, tax na ba saa soo xamee ni ku ne xam na ni adduna bi fi mu toll nii jaxasoo na lool ci ay istibaakaat ci ay violence ak ay yëngu-yëngu te li ko waral mooy euh, li ñuy wax tatarruf mooy ñàkk digg doomu mhm. ndax yàlla ni mu bindi àddina mhm. ak doomu aadama mhm. moom la ñuy wax alwasatiya maanaam yàlla dafa bind àdduna bi ak nit ci équilibre ba tax na baatu alwasatiya danañ ko wax euh, al i'tidal danañ ko wax al al mizan danañ ko wax at tawazun ba tey euh, mu mel ni buñ koy buñ koy wax nag mm-hmm. am na at tawasut ar rayaadi yi mm. ci mathématique mooy miir bi bu mm. kenn taxawee ca koñ bee keneen taxawee koñ bee ka nekk ci digg ba mm. waaye loolu dañ bëgg a wax mooy alwasat alwas al al al mooy ñaari mbir mm-hmm. yoo xam ni dañoo dañoo dañoo dafa dañoo taxaw mm-hmm. ñaari mbir am nga xool benn ba melal melal ko daal ni lii mm-hmm. mooy la nekk ci digg ba mm-hmm. léegi nag saa yoo xamee ni àdduna bi jaxasoo na ci ñàkk équilibre moo xam ay jikko ci wàllu pas-pas la wala ci wàllu jikko maanaam wasatiya su amul rek tatarruf day ñëw li ñuy wax extrémisme day am te su boobaa day waral yëfi jaxasoo mhm. moo xam ki ne ci marché bi la di jaay yokk prix bi mhm. ba ëpp na jéggi dayoo ba mu jéggi mhm. ndax su boobaa dana lor nit ñi su ko wàññee itam dana lor boppam kon faw mu eh, defe ko noo xam ni dana mën a jariñ jariñe su ko defee lii waral lool nag maanaam lii waral ñàkk ñàkk ñàkk a équilibre ci àdduna bi mooy tasil mooy lu ñu wa xam-xam bu leer mooy di jëlee xam-xam fa nga ko war a mhm. te di ko teg ci yoon wa nga ko war teg mhm. moo tax mhm. euh, alquran indi baat bi wa kathalika ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas ku ci mel ni imaam ahmad al buxaari ak euh, abu saad al xadari ak euh, faxru raas yi ñoom mm. ñëpp nee nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al adlu la ko firee mm. mooy wasatan googu mm. al wasat bu ko defee nag mooy ni yàlla bëgg maanaam ni yàlla binde ni nii laa bëgg mbir mi mel ko nga xam ni du doo du def tasaaxul mooy doo xool li la neex rek nga nekk ca daan lii mooy li gën déedéet waaye day dëppoog li yàlla ni ko yàlla bëgg ak ni ko yàlla binde ku ci mel ni ibnul jarir moom nee na mm. mooy bañ a yéesal mm. bañ a ëppal mm. nee na mooy alwasatiya mooy bañ a yéesal bañ a bañ a ëppal mm-hmm. euh, te loolu mooy njàngaleem lislaam mm-hmm. a jëm ci biir bi addina ni ma ko waxee woon léegi mm-hmm. ak nit suñ borom da leen bind ci équilibre doomu aadama ak ak adduna bi noonu kaw nu bi noonu la ko yàlla bind euh, ndax dafa wax ni waxa waxalaxa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira maanaam mbir mu ne dama ko bind hmm. ci ak équilibre hmm. xool nam gëne ma defe ko noonu hmm. wa kullu shay'in indahu bi miqdaar lenn lu nekk nag ma bind ci ab som boo xam ne du du ëpp du yées waaw wa euh, ba tey guddi bind guddi bëccëg bind lëndëm bind leer bind tàngaay bind sedd bind lu wow bind lu tooy bind asamaan bind suuf mm. bind jaww ji mm. waaye lenn lu nekk it mm. du ëpp moroomam maanaam guddi du yàgg ba fekk si bëccëg waaye bëccëg it du yàgg ba mu jaxasoo guddi ndax maatara fi xalqi rahmaani mm-hmm. min tafawutin mm-hmm. Mm-hmm. la samsu yambaxi laha an alxamar wala laylu saabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbaxun maanaam euh, maanaam euh, mboolem planète bi lenn lu ci nekk ni ko yàlla bindee mm. fam nekk rek jant bi majaraat ya muy romb ñoom lay romb abadan mm. Mm. weer wi it noonu day wër suuf si abadan waaye du déplacé wu mukk ndax benn bu ci faussé woon rek adduna tukki waaw noonu noonu yàlla bindee adduna noonu la bindee nit mooy lim ko ni mu ko bindee sant ko ni ko nii laa bëggee nga mel ko saa yu ko bàyyee rek adduna tukki moo xam ci jëflanteeg nit ñi da caa def lu mu war def. Hmm. wala ci wàllu pas-pasam. Hmm. ba ci diineem sax. Hmm. bu bàyyee lañ ko sant. dem defi leneen. dal day day day waral problème bi. kon loolu itam. day day loo xam ni. lu mat a bàyyi xel la. Euh, naka noonu. Euh, boo xoolee alxuraan. ihdina siraat al mustaqim bi muy jàngale. daf ni yàlla na nga ma gindi ci yoon wa jub wa nit mi ngi jàng alxuraan man maa ngi jàll sax ci ci ci ci yeneen kam waaye kon nañ waaw waaw gàttal daal al wasatiya mooy mbir mu nekk lañ ca tànn lii mooy la ci gën waaw ñu koy wooye al wasat al i'tibari mm, mm, nga xam ni mm-hmm. euh, boo ko waxee ñëpp dañ koy nangu boo ko defee it mm-hmm. ñu jàpp ko exposé gu am solo googu nga leeral ci wàllu wasatiya wax nga ne wasatiya mooy digg doomu mm-hmm. bañ a ëppal ci mbir bañ cee yeesal waaye nga tege ci digg bi rek mm-hmm. ni ko waxee loolu nga xam ne borom mm-hmm. xam-xam niñ ko niñ ci aaya jooju wa kadhalika ja'alnakum wasatan jooju mooy tekki ne mooy li ma waxoon léegi ne lislaam diine yi digg doomu la euh, waaye ni nga ko ni nga ko ni nga ko leerale ci wàllu planète yeeg euh, fi ne al ardu taduru xawla xawla nafsiha mhm. loolu géographie yoon yi di wax mooy ah mhm. suuf si day daw di wër boppam waaw mhm. ah, loolu bala nga koo xam fi ne am na ñoo xam ne fi ne ñu ngi ci guddi ñun am na ñoo ne ñu ngi ci bëccëg la ko waral mooy euh, maanaam suuf si dafa wëlbatiku ba ba ñun ñu ne ci guddi ñu féete suuf nga xam ne gisatuñ jant bi ñoom ñooy gis jant bi moo tax ñu ne ci bëccëg te dara li tax nag tabax yeeg ñun duñ juutuñ def nga xam ne ni nga meloon ngay mel mooy mooy xel wi suuf si di daw du du yokk du wàññi ko ni nga ko waxee léegi du yokk du wàññi ko benn xel rek la mhm. ba ko yàlla sàkkee ba tey mhm. ñaane bu yokk woon tuuti rek wala mu wàññi tuuti rek adduna mhm. day daal day euh, la suñu borom bind lépp loolu it moo tax suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrul umuri awsatuha mbir yëpp la ci gën mooy la ci gën a digg doomu kon lu man doon ci lu nit ki jëfandikoo wala nit ki def wala muy wax la ci gën rek mooy mu digg doomu bañ a ëppal bañ a yéesal te loolu dinañ ci gën a dellusiwaat allah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 wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi arrahmani arrahim بسم الإله الذي قرآن قد نزل من ابتداه وأرجو إن نزلا بسم الإله الذي القرآن قد نزل من ابتداء وأرجو إن نزلا سبحان رب الكريم جاد لي كرما بأنه لحاسم قرآنا هدى وجلا man kaana lillahi kaana allahu jalla lahu wa man tawassala bil maahi lahu xubila allahu salli bi taslimin bila adadin عليه بالآل والأعصاب والفضلاء لله خطبت أيضا ويغفر لي ذنبي ويسر عيبي بالذي فضلا دنيا وأخرى ولا أبقي به بدلا هب لي مرامي وهاب دونانا ولتكفني بالرسول الله كل بلا إياك أسأل يا دنيا يا عبدا خديما خد حواني على لي جد بعلم وسائل لا سماد بن ولتكفني نقد هاد واسف للعللا رل من خير مكر خفي واكفني الخجلا خذني عن سر واجلب للخيور معا ولتكفني الخزي والأقدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به كالبهر جودا وفيضا واكفني الكسلا اجعل جميع الذي يكون لي ابدا عونا على فعل ما اخترته عملا نصف جنابي ولتكفني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي يوم القيامة بسرعة حقق الأمل لها بجاه الرسول الله سيدنا الله عذب يوما يكسف الزللا رجوت عطا فما خطاه حريم إلى زهير بمدح خير من بزلا حمدتك اليوم يا من لا شريك له فكمل عني به مثل الملل كملا يا رب سل بتسليم بلا عدد على الذي كونه عن سبي ولتدم لي عندك النزلا محمد ولتنم خير صلاة عليه بالآل والعصاب والفضلا محمد بجميع الآل ورد بي عن سعبي ولتدم لي عندك النزلا subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin macha allah jërëjëf Sëriñ Ousmane jërëjëf ci njàng mi moom njàng mi moom dafa boole dafa boole neex ak wér la la sëñ Balla Fally waxoon Mame Ibra Dieng ci ne ko jàngee nga na ko na ko borom bindee hmm. xam naa bala ñoo bala ñoo jàll sax sëñ Ousmane ma sof ab laaj hmm. muy njàng mi ngeen di jàng muy njàngum xasida mi hmm. ndax euh, lu nit di yëg rek la di ko jàng wala ndax lu ñuy jàng la ba mën ko di ko def wala lu ñuy donn la waaw <coughs> xam naa question bi daanaka mën naa ne buñ ko boolee lépp lépp rek pour mu gën a gaaw directement rek mooy. Hmm. luy tax a doon ab jàngkat. xam naa noonu laa koy dégg man. Euh, ak jagle lay doon bi ci njëkk. Hmm. mooy xasida yi. Hmm. ku neexut sëñ bi doo ko jàng. doo ko yëkkati. sëñ bi lay tànnal boppam. waaw murid bu nekk nag am nga na ci ñëpp. waaye nag eh, am kàddu di jàng ñu dégg la xam ne yow miy jàngkat nga. yi ci sëñ bi sartonte yëpp mm. mu dajee mm. loolu moom ak jagle lay doon mooy sëñ bi day namb nga bokk ci ñuy jàng mm-hmm. mu jaglee la loolu mm-hmm. muy benn mm-hmm. waaye pour nga am pédagogie bi nag ba man koo man koo man ni ko mane ba noppi porté ko nit ñi mu dugg leen par force loolu ñuy jàngi la moom <laughs> loolu moom mm. lu ñuy dem wuti ko la ndax ku la jiitu ci am néeg moo lay wax fi ngay toog boo duggee kon wuti gi hmm. boole na ñaar dina dina la may expérience su jàng hmm. dina la may tamit hmm. barkeb jàng waaw ndax métti mu mën doon mën nga ko jàng ba mokkal ko man ko ni ko ñëpp ma ne waaye pour ma jariñ la moom day am barke te barke bi faaw nga sonn topp la koy may mooy nga fekk ku koy def ni yow nga topp ko ñàqal ko yéene ko mu am ndam yàlla jaare ca defal la ci cër yow nga am cër. macha allah troisième point bi. Ah. mooy donn bi. Hmm. am na luy am ci biir jàng loo xam ne ki ko doon rek ko man bi nga bi nga amee jagle gi dem wuti ko hmm. ba pare hmm. am na luy am ci biir loo xam ne saa bu amee ñu ne eh, loolu moom donoo koy joxe mooy deret lay doon loolu nag ay secret yu ne ci biir yoo xam ne ñi ko doon rek ko am waaw man nag man dama ko doon ndax sama yaay bu sama bàyyi masaana am programme war a fanaanee jàng hmm. sama yaay mooy tàmbali première heure bi ba trois heures sama bàyyi àggale subhanallah waaw kon dama ko doon macha allah <laughs> jërëjëf sëriñ sëriñ Ousmane day mel ne kon xam naa looloo tax yëf yi mel nii mu mel <laughs> ni nga ko leeral li nga xam ne ñett yëpp kon liñ liñ laajoon ñett yëpp day tàbbi ci biir hmm. mooy ak jagle lay doon loolu mooy yëg-yëg bi hmm. ak jagle lay doon ba des mooy da koy jàng ba man ko ba ca desit mooy des na ko doon waaw ñett yëpp nag bu dajee ci la ci ngay doog a doon jàngkat kaamil kaamil waaw boo xam ne moom saa boo jàngee rek ñëpp ne o oh. ñu mm-hmm. ko waxee jërëjëf loola neex jàng daal waaw <laughs> macha allah jërëjëf sëriñ sëriñ Zon mm-hmm. loolu am na solo lool kon sëriñ Saliou xam naa ñu dellusiwaat ci tomb bi rek mel na leeral nga al wasatiya te mooy digg doomu ci lislaam mooy lan kon ñaareel tomb bi nag mooy eh, ci alquran ana nan la alquran jàngalee wasatiya moom mooy nañ koy fekkee ci biir alxuraan alxuraan jàng jàngale ko noonu. Hmm. Hmm. jërëjëf sëriñ <coughs> sëriñ Mbaye ñu nuyu suñ sëriñ bi doon jàng léegi. Hmm. ko ziyaare bu baax. jërëjëf ko ñaanal <coughs> suñu borom defal ko tawfeex. min min mbàkk waaw mel ni. Euh, ni mu ko waxee rek alxuraan daanaka alxuraan waxam jenn lay doon mm-hmm. waxtu wu nekk mm-hmm. andi na ci ñëw na ci saa su nekk ñëw na ci lu bare bari mm-hmm. ndax fi mu naan wa anna eh, ihdina siraatal mustaqim moom laa doon tàmbalee de xam nga diine diine lislaam wax naa léegi ni mooy diine ji gën a digg doom ndax mi ngi nekk maanaam di al al yahudu wan nasaara mm-hmm. al yahudu seen diine <coughs> dafa woyofal yu bari mm-hmm. an nasaara seen diine dafa mm-hmm. teengal yu bare bari islam nag moo ne ci digg bi dëgg la <coughs> kon ñaari mbir la ne ci digg ba rek mooy la ci gën dëgg la alquran daf ni ihdina siraatal mustaqim waaye nga jàllaat tuuti mu ni siraatal lazina ana xayril uh, maxdubi alayhim a wax xayril maxdubi al an ñoom dañoo ëppal ci yoonal mm. àgg nañ ci di rey anbiya yi àgg mm. nañ sax ci yéesal tuuti ndax ñoom bu gis jigéen gisee regal mm-hmm. àggoon nañ ci dañ koy génn seeni kër mm-hmm. xam nga loolu atte la boo xam ni mm. ak ëppal la ndax liñ liñ la wax mooy euh, ci lislaam jigéen bu gisee regal borom këram du nekkateeg moom dindil nañ ko julli waaye àgg ci boddi ko génne ko mhm. loolu ak ëppal la dëgg bu fekkee ni mhm. nasaraan yi mhm. ñoom jigéen bu gisee régal ñoom woyofal nañ dañuy nekk ak moom ci waxtu ne maanaam dëgg luñ ci amul luñ ci xool ak luñ te lu bare bëri dañ koo daganal dañoo woyofal kon di tatarruf ak tazahul la ne ci digg ba mooy al istiqaama mooy siraatal mustaqima Mm-hmm. alquran ni wa anna hasa siraati mustaqiman fattabihuhu mm-hmm. wala tattabihu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi salikum mm-hmm. wasaakum bihi laallakum tattaqun mooy li Seexul Xadim daan wax ni ku dul aw ci yoon ku nekk fii fan la rek ngay mujje waaw kon alquran euh, noonu la ko noonu la andee wasatiya euh, boo xoolee itam al wasatiya booy xool ci wàllu xaqida ak ci wàllu axlaax ba ci wàllu jikko yi mm. ndax fi mu ne nii mm. tabe gii ñuy tabe mm. am ko waxoon ni bay na tabsirin wa boxlin rutba wa kila hazayni in daama xatal maanaam yor sa alal di ko yàq ñuy wax gaspillage di ko yàq te baaxut mm-hmm. nayit baaxut mm-hmm. waaye la ci digg ba xiyam axlaax yàlla moom lañuy ñuy wooye tabe mm-hmm. loolee soo ko jéggee rek nga ëppal su boobaa dañ koy jikko ju ñaaw lay doon su su su néewee itam maanaam ak yàq lay doon. Mm-hmm. ndax nit bu fekkee yàlla def defal na ko wërsëg. Mm-hmm. mu cay def lu mu wërta def. Mm-hmm. bu déwee ne dana yalwaati. te loolu la ñuy bañ. su fekkee it yàlla jox na ko wërsëg mu téye ko nay. dana dana ko jural ñi jeg ñi ko jege ñëpp dañ koy bañ dañ koy soxare te loolu moo tax alquran ni wala tajxal yadaka maxlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fa taqamu da maluuma mahsura dëgg la kon la ca diggante bi rek la soxla mooy euh, moom la ñuy wooyee tabe hmm. mooy mooy xiyam axlaaxiya hmm. wallazina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yoqtiru hmm. wa kaana bayna saalika xawaama loolu mooy alwasatiya mooy dépassé bul bul bul ëppal waaye bul bul bul waaw kon la ci digg ba rek loolu mooy waaw ko defee nag euh, loolu mooy euh, ñaareelu tomb bi boo duggee ci biir euh, nga gis ni masaahib yi nga xam ni wala xarakaat yi fi nekk wala mouvement yi nekk ci àdduna bi yi nga xam ni dañoo ëppal nga xam ni dañoo def tanaaxut ak alquran wala lislaam am na lu bari loo xam ni jural na leen ko am na it lu mu jural àdduna bi ndax mouvement yu bari ngay gis seen slogan mooy liñ leen di dafay ëpp wala mu yées bu ma ciy joxe misaal hmm. moo xam masahib masahib yi la wala a tawajjuhu taifiya hmm. wala ba ci masaarib ak turox yi hmm. ba ci sax fiqhul waaqi ni ñuy dunde ñun ñi ci suñ biir yooyu yëpp boo ci joxee misaal xam nga xam nga dañuy wax ni euh, al insaan kaa in ijtimaai la bi tabax mooy doomu aadama foo ko fekk day soxla moromam maanaam doomu aadama mënta mënta beru moom kese di dund faw muy muy muy nekk ak nit ñi di jëflante ak nit ñi hmm. léegi nag loolu hmm. euh, jikko yi hmm. moo la mën a dimbali nga digg doom ba mën a jëflante ak doo ñàkk sab xarit doo ñàkk sab soppe doo ñàkk sa yu bare bare léegi nag euh, xam nga xulamaa ul mantiq yi dañuy wax ni al xukmu ala say i farhun an tasawurihi maanaam nit ki ni mu gisee lii maanaam nit ki lim lim li mu attee maanaam aw gisinam la mel hmm. ni mbir mën naa taxaw ñun ñett ñi kenn ku ci nekk lam maanaam la nga ca atte bokkut ak li ci sëñ Ousmane mi atte bokkut ak mën mi la ma ci atte waaye la nga ca gis waaw saw hmm. gisin hmm. loolu tax na nag euh, su ma lay misaal lu ci mel ni ñi ñuy ñi ñuy wooyee almisaal yi yoona li ñuy euh, mooy idéalisme nga xam ni ku mel ni Platon ci xeltu Euh, philosophe xeltakati grec yi la bokk hmm. bokk na ci ñi ko ñi ko créé hmm. ñoom dañoo gëm ni doomu aadama hmm. euh, cër yi amul solo ruu gi rek lañ war a dundal waaw nga xam ni ñoom jàpp nañ ni ruu kese kese moo am solo waaw euh, jëmmi ji yaram yi mën naa bañ a sol yére mën naa bañ a laal parfum man naa mën naa def mën naa mën naa meloo woon nu ko neex xam nga loolu ak ëppal la ndax doomu aadama nit suñ borom du ko bind ci physique yaram wi hmm. ak ak ruu ak xel psychologique hmm, yooyu yëpp benn bu ci nekk dafa am lu mu soxla waaw moo composé moo composé nit si hmm. am ñeneen ñu dikk loolu sax day dem ba day dem ba fii sax ba fii ba ci eh, yàlla na ma yàlla baal ba ci boo xoolee jamono ji ñu nekk ni murid yi léeg nga gis ñoo xam ni seen seen jëmm yi amuluñ ko yitte waaw nga xam ni buñ bu buñ la jegee yow lu am xaw a doy waar dañuy sellal loolu loolu du caagin lu baax la topp lu baax ba bàyyi sa jëmm ji. Hmm. loolu loolu loolu lu du lu kenn xam. waaw ndax nit dafa war a nite. Hmm. am na ñeneen ñu ñëw ni ñuy wooyee alwaaqi yoon yi. Hmm. mooy e, réalisme. ñoom dañoo ñëwoon ngir contre idéalisme. mooy ñoom dañoo wax ni ruu amut solo. mooy nañ topp jëmmi doomu aadama defar ko parfum bu rafet oto bu rafet kër gu rafet soxna su rafet nga xam ne ñoom seen àllaaxira amuñ ci benn yitte. waaw seen àddina rek. moo leen ñor hmm. waaw nga xam ni ñoom foofu loolu lañ gëm gëm nañ ni hmm. ruu moom amul benn yitte maanaam kenn waru koo toppatoo hmm. waaw loolu it dafa yaatu ci àdduna bi ndax ñu am doole lañ ndax jëmbat nañ seen xalaat ci nit ñi ba li ëpp ci ëpp ci doomu aadama yi dara ñoratu leen fi mu dem nañ ba jàpp ni li gën mooy mooy ka gën a rafet oto wala ka ëpp bu dee bu dee bu ëpp mbooloo nangam nangam yu demee noonu maanaam mbirum adduna léegi la ñuy toppee ku ne waaw mu bu dee am na sax ñoo xam ne bu ñuy bëgg lu baax dañuy xool que adduna gën a wuyu ñu topp ko loolu euh, loolu ak ak ak yéesal la yéesal la ñoom al alwaaq yi yoon yi leen euh, ba tey am na ñu ñuy wax euh, alwahabiya ñoom yaatu nañ jamono ji ci réew yi mhm. ñu bari xam nañ leen mhm. li ñuy wax taj siim dañ koy def mhm. par exemple buñ ne yadullaahi ñoom duñ ko tawil duñ ko tawil te suñ borom <laughs> boo boo ne am na loxo faaw nga wutal ko barab te barab am na lu ko fa jiitu te su boobaa da ngay dàq melo yàlla yi dëgg la waaw al al al xidam al baqaaw al al fana maanaam melo yi nga xam ne joxoon nañ ko suñ borom yooyu yëpp boobaa da nga koy dàq kon li baax mooy li ahlu sunna wal jamaa def hmm. mooy lépp loo xam ne ñëw na hmm. dëppook xam-xam ak alxuraan ak hadis ñu hmm. jàpp ko bu fekkee ëpp na sam xel nga tawil ko waaw kon ñooñu itam euh, par misaal la ci ba tey al istirakiya ci àdduna bi mooy euh, ñi nga xam ni socialiste yi nga xam ni ñoom jaamu nit ki rek jaamu bànneexu nit ki maanaam lu lu nit ki bëgg rek waaw euh, capitalisme yooyu yëpp nga xam ni dañuy jox ay droit yu ay droit ak i aq yu ëpp nit nga xam lu lu neex waaye def lu neex waay xalaat hmm? nit ki am naa sañ-sañu wax lu la neex am nga sañ-sañu def lu la neex hmm. ba jox ay droit li ñuy ay droit de l'homme boo gisee li lii ñëw ci àdduna bi ci wàllu ay ngóor jigéen ak hmm. ak yoo xam ne naqari na ñu bëree bëri te mënuñ koo faj àq yooyu ñu jox nit ñi mm. te yàlla jox leen ko moo ko waral waaw yooyu yëpp day day day day day day indi mm-hmm. ay catastrophe mm-hmm. ak lu mel ni mm-hmm. la ñoom ñoom nee nañ xel rek lépp lu bàyyi ko koowul ci xel soxlawuñ ko ñoom duñ sukkandiku ci texte mukk maanaam xel rek ak euh, ñu mel ni al ci ci biir lislaam ñu ñuy wax saahiriya ñoom noonu nañ ci taxi rek la ñuy sukkandiku mm. nga xam dañoo dàq xel na le mm. ñoom taxi rek lu saxul ci taxi mm, waaw dañ dañ koy dañ koy sànni teg na le ak lu mel ni falsafatul israaq ci côté yi andalos mel ni ku mel ni ibnul arabi yi nga xam ne dañuy wax alxulul al ittihaad kon yi yëpp ay mbir la yoo xam ni judd na ci àdduna andi na fi fitna tasaare na fi ay njaboot tasaare fi ay bokk Mm-hmm. tasaare fi ay diine indi mm-hmm. fi ay xare mm-hmm. taal fi ay kër taal ay jàkka taal ay jumaa yàq mbooloo yàq lu bëree bëri loo xam ni ba léegi nii ñuy ñuy wax ak yow kenn mënatu koo defar te ëppal moo ko waral wala yeesal waaw kon dañuy taxaw ci tomb boobu buñ ñëwee dañuy ñëw ci Cheikhul Khadim ana nan la wuutee ak yii philosophe may wax ak yii mazahib ak ak nan dundalee mm-hmm. nan la jëmmale al mm-hmm. wasatiya bi nga mm-hmm. xam ne moom la lislaam soxla dëgg-dëgg dëgg la dëgg la macha allah euh, jërëjëf Serigne Salih macha allah leeral gi am na solo lool mel na leeral nga ne alquran mooy dusturul umma al islamiya mooy mooy mooy constitution xeetu lislaam bi ba tax lépp lu ñuy jàngale ci lislaam ci ci alquran lañ war a dellu mooy mooy la ci jiitu alquran la koy firi wax nga ne mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale gaa yu baax yi ci topp nag doog a ñëw gën mm-hmm. koo jot li mbooloo mi mm-hmm. alquran moom nga wax ne inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam mm-hmm. alquran dafay gindee di tege ca la gën a jub la gën a jub mooy ni nga ko waxe siraatul mustaqim kon almaghdubuuna alayhim wala addalluun ni nga ko waxe mooy yahudi ak nasaraan yi boo xoolee ci seen biir dangay gis ne euh, alquran sax am na fu muy wax waxaalatil yahudu laysati nasara ala shay'in wa xaalat nasara laysat alyahudu ala cheyin wa hum yatluuna alkitab mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne ñii dañ naan kii néewul ci dara mm-hmm. ñii ne kee néewul ci dara kenn ku nekk xëcc jëm sa côté loolu kon mooy ñii dañuy ëppal ñu yeesal waaye ñoom ñëpp nag ku ne wax na dëgg ndax ñoom ñëpp kenn néewul ci ci dara ki ne ci dara mooy ki ne ci lislaam inna diina inda allahi lislaam uh, wa man yabtaxi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasirin ni nga ko waxee itam anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon wu jub bi ngeen ko topp te bañ a topp ñal yi wala tattabiu subula mm-hmm. wax nga ko léegi sëñ Tuubaa daana wax ne dee leen dee leen aw ci ngir mi tey bàyyi fétal mm-hmm. ndax kuy fétal kat fuy fii rek ngay mujj mm-hmm. kon aw ci ngir mi mooy bañ a ëppal bañ a waaye nga wax lu am solo mooy ci wàllu ni ñuy dépenser sax l'islam dafay jàngale Euh, nan la ñuy dépensé ndax fi mu ne léeg-léeg nga gis koo xam dañ koy jiiñ nay lam am yam ci boppam mu yamale ko ci boppam waaw kay walaa tajal yadaka maxlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast mm-hmm. mm-hmm. safaan ba ñi nga loolu mm-hmm. ñi nga xam ne da maanaam dañoo dañoo maanaam ëpp lu yéesu dañoo teg ci asrafu walam yusrifu walam yuqtu wa kaanu bi dalika xawaaman waaye nga leeral itam wax ne maanaam ñi nga xam ne ay xarakaat lañ wala yu judduwaat ci jamono bi te dëppawuñu ak lislaam ak noonu mu jàngalee mhm. jafe-jafe yu baree bare bari mhm. euh, am nañ ko mhm. ba ni ko junjee léegi ci ci wàllu murit gi nga xam ne sama classe gi da ngay gis ci ñun koo xam ne euh, day ñàkk a dégg njàngalem sëriñ bi xam naa loolu sax ni ci ñëw ci kanam waaye ñàkk a dégg njàngalem sëriñ bi day tax ni muy ni muy melal jëmmam loolu yaa ngi ko doon junj da xam ne jëmm daanaka du am soxla ngir ngir wane ne rek day dafa dafa sóobu wala yu mel noonu te fekk la la la imam malik waxoon laysa tasawufu lubsa suufi tarqaahu wala bukaa aka in ganna al mugannuuna wala siyaaxan wala raqsan wala taraban wala tiraban ka an xad sirta majnuuna bal tasawuf an tasfu bila kadarin wa tatbaa alxaqa walqurana wa diina wa an tura xaashian lillahi muktaiban ala dunubika tuula dëhri mahzuna loolu dama ciy fàttaliku xissa boo xam ne dañ ne suñu suñ suñ Cheikh Mamadou Fadil ak Cheikh Mamadou sëñ bi da leen a mas a wax ne na ngeen doxantu ci réew réew mi waaye na ngeen jaar ci seen baay Siré mooy sëñ Siré Lo li ñu génnee ñu ne ah ginnaaw sëñ bi kat moom la tuddu turam ñu fi nekk ci mag ñi bari na waaye moom la tuddu turam kon nañ fa njëkkee bi ñëwee wax ko loolu sëñ sëñ Siré leen sëñ bee leen wax loolu ñu ne waaw mu ne kon de daa bëgg ma dénk leen daane waaye li ma leen di dénk nag mooy da ngeen di fexe defar seen jëmm ba ku leen gis xemem leen te ngeen defar seen jikko ba ku jaxasoo yéen dootu leen mën a muñ kon bari na ci nit ñi ñoo xam ne sama classe dañuy defar seen seen jëmm nii ba mu rafet ba ku leen gis xemem leen waaye saa boo ñoom wala nga jëflante ñoom daal leen di mën a muñ man leen a suur ci kii nga gis koo xam ne it day wàcc jëmmam noonu mu mu mu boo ko gisee doo ko xemem doo doo doo sawar ci jëflanteem doo jàpp ne mën na dara fekk boo jaxasoo na mu fekk na mën na mën na lu baree baree bari Mm-hmm. waaw kon kon lay lay lay digg doomu nag ci ni nga ko waxee suñu saare mm-hmm. mooy fexe ba bañ a a ëppal fee bañ a fee waaye nga yem ci nga yem bi mm-hmm. ba ci ni ko waxee ne nit ki li ko composé mooy ruux ak jëmmam akum xelam lu ci nekk dafa boo ko war a jox su fekkee sàggane nga lay jàppalee rek kon suba ëppaloo maanaam danga danga da ngay ëppaloo la ngay yéesal waaye tegoo ci digg bi maa danañ ci nañ ci nañ ci delloos mooy loolu borom dal yi noonu euh, soq sunte kan dafa suraya wa suraya fal jismu kuwina min xisisil xirmidi wa ruuxu kaana nushuubuhu wa nuzuuhu min dalika al ali al amjadi ba waye waye jeex jërëjëf sëriñ loolu am na solo lool mel na leeral nga ci lu mat a lu mat a jàpp xam naa bala ñoo jàll ñu dellusiwaat ci sëriñ Ousmane xam naa laaj bi ma lay laaj moom lay jiital ci njàng mi mooy njàngum xasiida dafa mel na ay xeet la ndax gis nañ ay kat gis ñuy jàng njàngum aw lu mel ne li ngay def yow euh, gis ni ñuy jàng njàngum kuréel euh, xeeti njàngin yooyu xëy na nga am ci ay ay yoo ci def ndax day mel ne koy gis rajas moom mooy li nga xam ne ñëpp dañ koy def moom ndax yaa ngi nii li nga jàng léegi jàngum rajas la ab kuréel kat boo ko jëloon mën na laa mën na laa rajasal mooy kon tàqale am ci diggante xeeti njàngin yi daal waaw loolu ci loñ waaw euh, loolu moom liñ ci eh, leeral rek mooy xam naa ne booy seet dangay wax ne njàngum rajas moo fi njëkk njàngum rajas lañ daan jàngal sëñ bi eh, ku mel ne ñoom sëñ Ibra Fall Buuna ak eh, ñoom sëñ Mayib Guèye mm-hmm. yaakaar naa ne ginnaaw bi la sëñ bi wutlu ab kuréel. Mhm. boo xam ne sëñ Massamba la ko wutloo. Mhm. muy fukki nit ak ñaar yooyu mu ko waxoon. Mhm. ñu tàmbali di mawlud. ginnaaw bi nga xam ne ni lafi fi sëñ bi jóge ci saayir ci la njàngum awu am. Baay Cheikh Fall mooy ki ko fi njëkk def. kon ñetti xeet yooyu. mag ña lépp loo xam ne daanañ ko def. maanaam day barkeel. dëgg la ndax kanamu kañ ko daan defee. Hmm. kookaa tax. moo tax loolu dafiy des ba nëgë ni hmm. euh, waaye nag bu fekkoon euh, jàng profession la boo xam ne hmm. dañ koy tuddee euh, tailleur wala ñu ne mécanicien la wala métallique la dañ lay wax ne la ay ab ay pàcc la ci maanaam wàllum rajas ak wàllum mawlut bu fekkee da ngaa bëgg a doon jàngukatub aw hmm. maanaam pàcc la ci biir njàng mi pour nga mën a jàng pour mu yombal sax mën a jàng hmm. mooy boo nee bëri di dugg ci njàng da ngay tàmbalee rajas ndax li ko waral mooy hmm. rajas yow kese la te bëriwul yoo xam ne ba ba ci ñi nga xam ne sax dem nañ ba ba ba bañ jël tudd ci jàng am na ci ñoo xam ne am nañ faiblesse su jekki-jekki rek jàng mënuñu ko. Mm. <laughs> dañ cee jaarul waaw maanaam mënuñu maanaam li mu bëgg a leeral mooy. Mm-hmm. comme tey tey bu fekkoon ne dañoo kuréel fii tey jii. Mm-hmm. rek nga jékki-jékki ne ma jàngal ma njàngum bolok. maanaam royal ma Fallou njaay jàngal ma njàng daay jàngum bolok mooy mi ñuy ser. <laughs> am na jàngkat yoo xam ne mënuñoo jékki-jékki rek. Mm. daaj rek ñu awu leen. Mm. boo digloo seen baar da ngay xam ne ñoom adapté adapté guñ ci njàng mi. maanaam dañ seen baat dana trembler wala ñoom ñuy lox hmm. wala nga gis leen maanaam dégg gi war a dikk wala loolu du am maanaam faw ñu concentré wu hmm. rajas genn xasida hmm. ba ba ba dikk maanaam bu doon bu doon bu doon bu la dama naan la ba seen première souffle dikk ñu doog a nekk nekk carrément ci biir njàng mi dañuy dugal première daal doog waaw kon moo tax rajas moom dafa am maanaam maanaam sax ñaare jàngkat boo gis mu am kàddu wala mu mën a jàng carrément dëgg-dëgg sax boo ko seetloo boo ko laajee dëgg-dëgg dina ne ci rajas laa njëkke wala ci mawlud rajas nag moo ëpp foofu doole mawlud parce que mawlud en général boo boo jëlee douze personnes yooyu mawlud hmm. maanaam neuf yi yëpp seen baat neexul waaw boo leen beroon kenn ku nekk nga ne ko jàngal. Hmm. maanaam nit dina yëkkati nga ne ko sëñ bi man ngaa <laughs> jégal ma <laughs> baatam du neex. muy benn. Hmm. wa ilaa bu fekkee baatam neex na it. Hmm. baatam du formé maanaam pour mën a jékki-jékki ni cas rek wax ba mu àgg. faaw mu dagg. boo boo boo dee liir moolu di nga boo da ngay gis nii. ba ci ñi nga xam ne ay professionnel lañ sax. booy booy liir bu ñuy moolu rek boo ngay gis ñoo xam ne dañuy yëkkati ba ci digg bi. ñu noppi. mais ñi ci des ñoo ñi nga xam xam ne am nañu fond. Ah. ñoo leen di mottali moo tax loolu du feeñ. waaw ah, da ngay dégg ñoo leen cat yi. waaw ñoo téye leen mu nga <laughs> wax waaye. Ah. kon boo gisee foofu. Hmm. rajas. Hmm. moo moo moo ëpp possibilité. Hmm. pour nga gaaw a mën a jàng. ci mawlud. mawlud kat bi mawlud ba mu rajas kat bii rajas ba mu jàgg mu dugg ci kuréel di mawlud. fu mu fekk gaaye. bu ñu sampee mooy dem. moom rajaskat bi. <laughs> Mhm. parce que booba plénaire ngay jàngee. Mhm. entraînement lay doon ci mhm. léegi comme tey nga ma tàmbali woon tey di rajo si xam nga man yoruma ay rajo. dëgg la voilà loolu démb lay doon démb nga koy wut. maanaam boo doon jéem am njàng tey dugg ca Roqusee. tàmbalee rajo si rek di samp ca kaw. foofa loo fa amee boo ñëwee ci rajo yi rek da ngay xam ne maanaam <laughs> dañ naan dañ doon na entraîné. mais bu dee mooy wut nag. li la ci wax léegi. Mm-hmm. léegi nag ñaar yooyu soo ci jaaree. Mm-hmm. moom itamit ba tey. Mm-hmm. soo duggee ci njàngam awu comme ñun mi ñuy def. day yombal li ngay def. dëgg la dëgg la la xam nga li wax. rajo bu njëkk bi nga xam ne faaw mu ne su waaw ma maanaam maanaam mu gaaw rek mooy. Mm. rajas mooy da doon fori ay doomi gerte. waaw mawlut. Mm. mooy da ko doon saaf. Mm. ba ñor. mooy tax soo ñëwee ci njàngum awo mi mooy nga wal ko tiga dega wala nga def ko nooflaay day yomb. <laughs> macha allah leer nañu si si ñëw sonn macha allah <laughs> leer nañu nañu kon day mel ne. <laughs> Euh, loolu moom li nga wax léegi rek euh, da ngay rajas day lu mënut a ñàkk daal. lu am solo ci njàng. waaw mën a mën a su cee bañ a jaar te li ko mooy bi ñu la joxee rek yaakaar naa jàng nga boo xam ne. naas naas lu woo te it hmm. meloo ne comme comme ni ko junjee léegi rek. Euh, loolu day am lu ko lu ko lu koy may hmm. Euh, moo tax ni nga ko waxee kat yi da ci am ñoo xam ne seen baat du neex am ci ñoo xam ne duñ dégg daaj waaye mm. àndandoo gi ñuy àndandoo moo moo ko waral mm. sëñ Tuubaa nag daana daana daana lu mel noonu ndax mm. day mel na ci gàmm gi da wax nañu daana wax sëñ Masamba yoralub yar ànd ak gaa yi ku ngeen fekk muy jàng baatam neexut wala mu yàq na ngeen ko noppiloo noppi ngeen bàcc bàccal ko daana wax ne it saa bu ma noppee ci xasida na ci borom xam-xam yi jëkk a jaar gannaaw ba baat yu neex yi kon na ci baat bu neex lool moo a kon njàng mi lu am solo lu mat di lu mat di jàngat la comme ni ni ko defee léegi mm-hmm. xam naa kon bala ñu ñëwaat Sëñ Sall ak xasida waaw mm-hmm. ah, ñu doogu ñu doogu ñëwaat mm-hmm. wal amra faaqam wal ajra azam fi l ala al باب الطريق أخي الوسوخ كل رضائي على الوسير سيف البصير رضا الخدير مجري الخضاء على الديائي أخلايا خير ردائي من البقاء على القريب ليس الهروب رضا المجيب مع ارتقائي على سابق سوي الإجابة يوم الكعبة رضا سنائي نعم الرجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء رضا السميع على الجميع يوم القصوء يوم النداء أربع بخير أربع بدير لباخ مير أو اعتداء كل سجاء له اتباع له ردفاع وقت الرفاء نعم الكمات نعم الحمات إذا نعمات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت سايفترائي تنا لخيري أعداء يصول مع الجراء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي سل وسلم على المكلم ودور عازم وسوء وحائي على الرسول باب الوصول لنيل سول أعمارها سل داما وسر سلام سلاما لي وبنائي ياس الإرادة ياس الإفادة خلد سعادة لي باعتنائي خني اعتداء سدني اعتداء sidin iqtida bila nay sabiq difaa'i bila jafaa'i tayib hasan واجعل وجودي فوق الأعداء هب لي ودادا قل المراد يا من أفاد بلا كرائي هب لي برورا خل الخرورا abdan surura mm-hmm. likulli ra'i mm-hmm. qilami wahmad kalami bila malami mm-hmm. walam tirai saddit lisani nawwir janani سفي أماني وسد برائي زهزه تضيرا لي قط ميرا فلتكفي جورا لي من يرائي أنقش عيالي من الضلال وبالعلال قلت شرائي قني عتابا خذ للكتابا واقبل متابا يا سسترائي يا خير ربي خير مرابي طيبت قلبي بعد ابتدائي سل وسلم على المتمم وكل يعزم بلا انتهاء اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد wa alihi wa sahbi wa farrixu bi haadihi manzumatin fi kulli waqtin wa hiinin abadan wa habli naazimiha ridaka al akbara fi kulli harfin minha wa habli kulli man yaqra'uha saad daarin amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Sëñ Tuubaa macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ Ousmane ci njàng mu am solo moom waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu yaakaar naa ne ma ko waxoon léegi rek njàng mi wér na neex na euh, te mboolem li nga doon leeral lépp daal daje na ci biir njàng mi ma mel ne exemple nga ci biir li nga doon doon leeral moom exemple nga ci yow ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëfal bu baax a baax xam naa kon euh, ñu teewlu ñu indi ñu ay publicité tuuti rek incha allah ñu door a dellusiwaat ci jataay bi ànd ak Serigne Saleh ci tomb bi nga xam ne moo ci topp

Xelcom transport di kuréel gu taxaw temm ci askan bi di dem ak a dikk ca na mu gën a selle looloo waral wutal nañu leen ay daamaar yu mucc ayib confortable légal taaru am sécurité xew moo mën a am ak foo mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi màggal gàmm céet wala ngénte dañ laa tudde bis ngay def délégation ana ndayale yi ana jàngkati xasida yi ñoo moom oto bi lii gën a neex fukki place mën a jël bagage da ngaa bëgg a lenn ci jeexiti borom Touba da ngay dem Njaareem wala Poroxaan Xuru Mbàkke Mbàkke naawel Ceyeen fu mën a doon waaw waaw roy du nuroog piir oto yaa ngoog xelkoom transport ka koy dawal ndongal xel xelkoom Serigne Saliou Kanji bismillah dem jàmm dikk jàmm xelkoom transport oto bi dal jàngkat yi kuréelu xasida yi ñiy dem ak a dikk ñiy siyaara ji ak fu ñu mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi danga cee bëgg ay leeral jokkoo ak ñun ci numéro téléphone bi 77 682 95 51 wala 76 879 60 05 Xelcom transport mooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak Xelcom transport da ngay dem jàmm dikk jàmm te ak dal ay di wa di muhu lillahi muftaridan asalaamaaleykum mbokk yi lu bees épicerie al buqatul mubarak ñëw na awaaw ah, waaw boo dikkee di nga fi fekk pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique ma ne lépp loo bëgg ci mbirum épicerie ñëwal épicerie al buqatul mubarak da ngaa bëgg ay fruits ñoom pomme ñoom banana ak ñoom seen ma ne da ngaa am màggal wala nga am événement bu rëy bëgg ay boisson wala ay fruits ci njëg bu xéwalee ñëwal épicerie al buqatul mubarak bu dee ci wàllum koor gi ah indi nañ bagage yu mucc ayib da ngaa bëgg tàndarma wala nga bëgg jus am nañ ay jus ay saucisson mën yii yëpp boo ko bëggee ñëwal épicerie al buqatul mubara waaye des na boo dikkee da nga fay fekk ay viande waaw waaw loolu mooy ndawal wala ay jën fruits de mer wala crack mën la lépp loo soxla ci wàllum pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique cosmétique waaw ay diwu yaram yu baax si yaram ak ay parfum épicerie al buqatul mubara boo bëggee ñëw ci épicerie al buqatul mubara bu dee ci jumaay Tuubaa nga jugee ñëwal ba ñaari étage boo doxee tuuti nga xool sa ndeyjoor di nga ñu fa fekk 55 81 00 wala 76 661 90 15 al buqatul mubarak moo leen di ñaanal kooru jàmm. Aaron Bollaa Séeri sopp Serigne Fallou boulangerie sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt Ndiané ci route allié bi di defar mboolem xeetu mburu yi mburu normal am na baguette am na pain au lait am na leen am na croissant sax dañu koy defar yéen ñi bëgg mburu moo xam abonnement wala événement ku bëgg a bindu ñu jële ko yët bés bu set weer wu ne nga fay événement maanaam xew woo mën a am boo jokkoo ñun def sa commande danañu ko traité yónnee la ko ca na mu gën a gaal waaw waaw boulangerie sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt bi ci route allié bi danañu defar mburu normal baguette madeleine ak croissants ak lépp lu jëm ci xeetu mburu la ca gën a neex am nañu poulailler bu mag a mag quantité boo mën a soxla ci ay ganaar foo mën a nekk ci biir dëkk bi poulailler baa ngoog ginaar yu mag ànd ak wér gi yaram ñu di leen toppatoo ñu jëfandiku bu baax di xool seenu dund seen wir gi yaram danañu la jaay defaral la ko andil la ko ak foo mën a nekk ci biir dëkk bi da nga bëgg ay leeral moo xam mburu mi wala ginaar yi jokkoo la ci numéro bii 78 470 79 79 80 wala 76 475 41 30 boulangerie sopp Serigne Fallou ak poulailler Lamp Fall ñooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak gi seen dund day neex. daa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 la ci Touba Belal kenkaayéeri fii ko jàpp foofu la lu baax suuf leen te ku liggéeyul ñu jëppi la yaa rabbi seen boutique maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif nekk fii nag ci Touba indi leen lépp li ngeen yittewoo nag ci ay téere ak téere boo mën a bëgg yow mi bëgg kaamilu alxuraan ak kaamil boo bëgg moo xam arab bi kaamil Baye Moustapha Lo kaamil Serigne Ahmadou Lo wala Serigne As Guédé fii nga koy fekk loo yittewoo ci ay xasida borom Touba yi foofu nga koy fekk ak mool boo bëgg moo xam en couleur wala bokk noir et blanc daan it photocopie traitement de texte impressionné ay bats waaye am nañ fi ay baylaat yu murite te moxtaare am fiit ay bay son bu ay abaaye ak yu mucc ay yamuñu foofu foofu indil na leen ay laafa original ay marakis daal li nga ay ba ci sax ay daali turki ak parfum bépp xeetu parfum boo bëgg rek doxantul fii sa aajo faju yax mu yor buy jàng bul jaaxle lépp loo bëgg ci ay fermeture boo demee maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif sa aajo day faju moo xam lii boo mën a bëgg arabe anglais ba ci sax français dañ leen jaayit ay kurus yamuñu foofu indil nañ leen nit ay njaq yu baax ci ndoxum siti emoxit dañu sax jaay la maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif kenn man leen fekk Touba Madiana ci mbaar yi en ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 77 204 44 63 wala 77 856 37 08 wala 76 793 am na nuy place centre commercial Serigne Fallou ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 76 587 11 86 wala 77 787 21 47 ak Martabatu Tawfeex waa kër borom Taïf aji yéppay faj la ilaha illa la faal maam seera faal yaay baabul muridina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 kon xam naa ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ñi ñu àndaloon ci wàllu publicité yi ñi ngi xam ne jël nañu ñu ngi sant bu baax baax te leen jaajëfal kon ñu delsi ci deuxième partie bi ànd ceeg sëriñ Saalix mu sëriñ Xamsatu mu sëriñ Abdul Ahad di waxtaane tey al wasatiya fil islam Cheikhul Xadim namuzaj maanaam euh, l'islam doon gum doon diine yi digg doomu ak ni Sëriñ tubaa doone exemple ci fànn googu muy fànn digg doomu waaye feggoo gi itam sëriñ Ousmane Diouf jànkatu xasida Euh, ñu dégg ko léegi ci njàng ma am solo mu wér mi ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Serigne Saalix mel na ni kon leeral nga lu yaatoo yaatu ci wàllu alwasatiya hmm. ak ni ko lislaam jàngalee ci alxuraan ak sunna hmm. waaye bu ñu dellu delsee ci sunu jàmbaar ji nga xam ne mooy Cheikhul Xadim di sunu royukaay ci lépp lu ñuy jàngale ci lislaam tam waxoon ne lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu algarra wa inni ahmadu wax ne diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu Euh, wax lu baree baree bari ci ci ci ci doon gum doon ab jullit bu boo xam ne yàlla képp lay jaamu te du ko bokkaale ak dara mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam lay liggéeyal te du ko boole keneen euh, ba tax euh, mu wax ne diini ilal jannati islaamu wa huwa ala diinan siwaahu wa da min allaahi loolu di lu leer naññ kon day mel ne ginnaaw moom lislaam mooy diineem te ci la nekk yonente bi salaa sallam donale ko diine ji mu wuutu ko fi Euh, di ko di ko leeralal aw yoonam ginnaawam doon ko ci zahir ak baatan kon day mel ne wasat yem yi ñu doon jàngale dana ci amab cër bu yaatoo yaatoo yaatu xam ne na ko mën a jàngate ci ak euh, kon sëriñ Touba naka la dundee wasat yem yi ñu doon waxtaane Serigne Saliou mm-hmm. mm-hmm. waaw jërëjëf sëriñ Serigne Mbaye mm. yaakaar na loolu daanaka moo ñu taxoon a jóg sax dëgg la mooy tom bi nga xam ni mm-hmm. moo ëpp importance ci waxtaan waxtaan wi ñu doon def tey Seexul Xadim moom ni nga ko waxee léegi daraam dafa génnul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo xoolee li li ma doon jàngat léegi mooy digg doomu dëgg dëgg moom moo ko def ci aqida hmm. ci jikko ci xalaat mm-hmm. ci mboolem am na dafa am wenn bayit bu mu andi boo xam ne mm-hmm. li ma wees woon lépp da ko tënk mm-hmm. bil lii banal xudduusu madrasatan biha yasulul asa wal jahlu wal kabal daanaka loolu buñ fi yemoon day doy sëkk ndax dafa wax ni ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi ñaan daara joo xam ne Euh, al asa dana fa deñ lor mm. lor loolu nag mm. day jëm ci wàllu lu violence ak physique mm. ndax mi ngi aju lor mi ngi aju ci wàllu yaram maanaam nit dara lu lu koy lor ci wàllu yaramam wala wala wala luy nuru loo xam ne da koy gàllankoor ci wàllu jaamu yàllaam mm-hmm. yooyu maa ngi ñaan daara joo xam ne loola dafay dafay deñ waaw euh, kon wal jaxlu hmm. moom day day jëm ci wàllu xel hmm. waaw lépp loo xam ni day tax mantaalu doomu aadama bi wala wala wala am xelam hmm. jaxasoo ba du mën a jaamu yàlla wala du mën a mën a xamati dara wala du wala mu koy yóbbu ci ak maa ngi ñaan mu dañ kon jëm ci wàllu ñaar yooyu dafa ñaar yooyu dafa dafa dajale yiñ doon waxtaane rek ñi nga xam ni dañoo jël wet gee képp jàpp ni lii mooy diine ñii jël wet gee kap jàpp ne nii mooy diine moom nag dafa ñëw mm. boole ñaar yëpp di xam le ni mm. kon dañ ciy jàngate ni mooy mm. nit ngir mu mën a euh, doon nit dëgg dëgg dëgg day jël euh, yëpp maanaam day jël ruuxam ak xolam ak xelam ak yaramam delloo ko ci diine te loolu bu ma ñëwee ci digg bi dana gën a leer fu mu waxee ni wala takun mu farritan aw mufrita mm-hmm. bal istaqim fii sunnatin wa aqsita mhm. nee na bul ëppal mhm. bul yéesal mhm. na sax ci sunna sunna nag mooy digg doomu rek ba tey mbay jax da koy mépp euh, euh, mbir digg doom moo ca gën ke yeesal ke ëppal ku nekkul moyam suñu laxat dafa am benn waay boo xam ni da ko joxoon xasiid ak ma faatihul bisri ni ko dee ko jàng sëñ Blaat moo ko jox waaw mhm. ni ko dee ko jàng mhm. bi mu ko ko joxee mhm. waa ji dem bis bi set mu jàng ko daanaka fukki yoon gis nga ma fàttewul bisri li ci nekk ci ay salawaat ak nim tol nga xam ne daanaka daa far bàyyi julleeg lépp topp xasee da ngay jàng di jàng rek dem ba mu ëpp ba mu ëpp doole ba mu ba yëf yi ëpp ko doole ba ko mu jël uh, ak buum bënn fii takk ko ci mm. ñëw ci bi man day mbàkke sama bopp dama la jël sama bakkan bi la jël la mu bëgg la koo jox jox la sama bopp nga jëmee ko fu la neex su bilaat xool ko ba mu yàgg ko diw hmm. nit ñi day boo leen génnee hmm. ab dof rek lañ lay wooye te mënoo fexe ba doon ci malaayika yi <laughs> ne ko diw hmm. maa bëgg nga doon nit te li ngay def kafteerub kafe ku la ko jox bëgg tiraanga rek a tax waaye nan loo wala kaas bépp benn kaas rek la la ca kon loolu da ci ciy jànge ni mhm. euh, yam mhm. dal dafa baax mhm. mooy li sëñ bi wax ni wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon sëñ bi day mel ni léppam da koo teg ci yoon foo foo lal nag da ngay jàpp ni sëñ bi fii rek la mm-hmm. boo ñëwee ci julli mm-hmm. boo ñëwee ci woor mm-hmm. boo ñëwee ci xam-xam boo ñëwee ci muhammala diggante nit ki ak nit ki ak nit ki naajul xadaayil xaaja ci kanamee dana leer insha allahu taala kon yoonu murit da koo tënk ci yooyu mooy euh, xam-xam ak jëfe ak jaamu yàlla ak teggin ñeent yooyu loolu day fournir mboolem li ma waxoon léegi li yàlla composé doomu aadama yooyu mboolem da koy da koy da koy fournir bu dee adab day indi mboolem éthique morale mooy jikko yu rafet ak ni ngay nit ñi ak ni ngay jëflanteeg ku dul ab jullit ak ni ngay jëflanteeg sax koo xam ne ab ab yéefar la bu dee xam-xam day indi jaanibu al al al xaqli yëpp rek day indi côté yëpp moo tax mu ni wal ilmu afdalu aqi min al hamal hmm. wa ussuhu fa hmm. faasa man lahu xasal hmm. nee na xam-xam moo gën jëfe ndax eh, balaa ngaa jëf bala ngaa jëf da ngaa war a xam ate ba ba noppi waxoon na ci naaju wala ci ci tasawudu si xaar ni képp koo xam ni yaa ngi jëf te xamoo la ca yàlla atte jëf joojee dañ koy delloo te ndax yaa ngi tooñ ca bopp moo tax xam-xam ak jëfe ñoom ñaar ñoo ànd doo xam képp ndax su ba yàgg mbaam mu safi téere yéen yem mm-hmm. waaye da xam ba noppi jëfe waaw bu ñëwee ci xam-xam da ngay jàpp ni xam-xam képp képp moo ko tax a jóg bu ñëwee ci xam-xam jàpp moom euh, spirituel képp képp la mm-hmm. waaye bu ñëwee ci jëfe it mm-hmm. noonu waxoon na ni sëñ Saaliw radiallahu taala anhu biñ fay nekk ci daara ji ñett yi la daan wax ni mooy tarbiya gi mooy njàng mi ak ak ak liggéey bi mm-hmm. ak ak ak ak njàngum alxuraan mm-hmm. xam-xam mu ne nag buñ demee ba benn mënu caa mënu mm-hmm. njàng mi ku ko ku ko boole boole na yëpp waaye ku ko bàyyi bàyyi na yëpp njàng mi waaw nga xam ne daana nangu nit bañ a dem tool daana nangu waaye bañ a jàng moom mosu koo nangu daara ji hmm. ñu ne woon ci daara yi sëñ Saliou hmm. bu la neexee nga bañ a dem tool hmm. du ngeen am ba jafe-jafe waaye xëy bañ a jàng moom loolu moom du ko ndax mooy li nga xam ne nee na ko ku ko ko bàyyi bàyyi nga lépp waaye boo ko nangu nangu lépp waaw xam-xam day day day lu am solo dafa am solo éducation ak enseignement gars yi xam ni éducation jàng euh, sa xel mi rek da jàngal képp waaye enseignement moom euh, waaw enseignement dalay jàngal hmm. maanaam dalay jàngal képp waaye bu dee éducation moom dalay waaw ñett yëpp la soxla hmm, waaw ñett yëpp la soxla hmm, waaw waaye nag Serigne Saliou nee na ñett yëpp la soxla waaye bu munta ñàkk nañ nañ jàng nga xam ne moom li mu njëkk a def rek moom Cheikhul Khadim wajadtuhu qad sannafa al ahbaaru fiiha dafatira laha asraaru lakinnama kutubuhum li tuuli sahida fiiha julla haasal jiil Mhm. gis nga li ma waxoon day ñëwaat mooy fekkoon naa ay boroomi xam-xam mhm. taalif ci mhm. waaye nag nit ñi dañ cee sawaratu li waral loolu mooy ëppal gi mooy dafa gudd ba ëpp waaw ndax nit dafa war a defi leneen nit war naa jàng ba noppi xëy dem liggéey xëy dem defi yeneen léegi nag mu ni gudd bi mu gudd moo tax ma ñëw fexe ba gàttal ko yemal ko nga xam ne ku ñëw da koy jàng rek pare ca dem defi la dëgg waaw waaw loolu da caa da caa kii mm-hmm. li kay yakuna tuhfatan li kulli man mm. araada xefsahu mm. min am naa isama nga xam day doon kado boo xam ne képp ku ko bëgg a mokkal rek mm. diggante su gàtt boo ñëwee da nga koy mokkal xam maanaam da nga ciy jàngee ci biir ci biir yi waxam digg doomu waaw digg doomu ji ma doon wax léegi moom ngay jàngataat ci biir waxam yaa nga xam ne leen nam guddee woon ak nam yaatoo woon waaw da la koy tënkal tënkin woo xam ne waaw da nga koy gaaw mën a mokkal jàng ko dem defi leneen waaw ba tey su ñëwee ci xam-xam ba tey li ma waxoon inni ujaahidu mm-hmm. bil ulumi wa bit tuxaa mm-hmm. abdan qadiman wal muhaymin shahid mm-hmm. sama ngànnaay yi may yor di ci jihaate xam-xam la ak ragal yàlla fi mu ne gis nga sëñ bi li tax kenn mënu koo far <coughs> euh, mooy euh, boo gisee ay mbiram di des ba di des faw mooy ay xalaatam yi mu ci nit ñi xam nga fi mu ne Ben Laden ñu ngi koy wax. Hmm. waaye ba léegi Ben Laden déewul ndax li Ben Laden faatu na waaye bàyyi na fi téeméeri Ben Laden yoo xam ni. Hmm. lañ daan def ña ngi koy def. na maa tër rëy. Hmm. man nit man nga maa tër rendi waaye sama volonté moom. moom ba abadan doo ko mën a dindi ci man. mooy sama pas-pas sama gëm-gëm. moom la Sëñ Tuubaa jëmbat ci xoli taalibe yi. fexe ba li ñu war a gëm. ñu gëm ko. dara mënu ko fee jële ndax boo ñëwoon di leen rey moom mooy yàlla yàlla hmm. yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy yonente bi hmm. maanaam li li mooy mooy lim jàngale hmm. ci kanam dana leer su ma ci ñëwee insha allahu taala kon mu wax ni yaa ayyuha subbaanu in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu fekkee da ngeen ragal gàcc na ngeen di jàng ba noppi a jëfe waaw kon foofu bu ñëwee da nga naan moom xam-xam képp képp la bu ñëwee bu ñëwee ci jaamu yàlla it noonu wajtahidu fi salawaati al xams takun lakum noorun ka noori samsi na ngeen na ngeen farlu ci jaamu yi ci julli ndax suñ borom dana leen defar leer goo xam ne mooy gën a kawe leeru jant bi wax la bi am na afdali taaati salaatuna fi awalil awxaati waaw topp yàlla waaye nag ci njëlbeen ak waxtu wa ba tey bu ñëwee ci woor noonu da jàpp ni moom woor képp yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi mhm. ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi mhm. la zilta dayfan kariman sairan abadan mukarraman bi xayra taaqati ah, mhm. waaw nga xam ni lim soxla mooy berndeel ko ci jaamu yàlla ba tey ci liggéey moom sëñ bi da ngay jàpp ni moom itam liggéey képp la gëm wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami nee sàkk lu lew day mooy liggéey faratale ci képp koo xam ne ab jullit nga mhm. suñ Mor Mbay Siise daa wax ne mhm. liggéey na la gënal sa ndey mhm. gënal la sa baay gënal la sab sëriñ ndax ci ngay taral sa ndey di ci taral sa baay di ci taral sab sëriñ dal <laughs> na ko yàlla gërëm moo tax sëñ bi ni laa yanfahu l ilma wala wala bi akli l xaraami inda saada xam-xam ak jaamu yàlla dara mënu la cee jariñ bu fekkee da nga boole di lekk lu xaram waaw moo tax euh, loo baax baax loo ragal ragal yàlla di dundalu lawit sëñ Tuubaa da koo boole ci ay ci ay mabaadiyam waaw ci mm-hmm, mm-hmm. noonu bu ñëwee ci wàllu yar mm-hmm. da ngay jàpp ni loolu rek ca la wax ndax boo demee ci nahju xadaa il euh, waxoon na ni is kullu man bi xayrihi ramat tibaax fa mhm. innahu yuhramu fawzan wantifa mhm. waaw nee na mhm. kuy topp yàlla ba noppi bàyyi fi ay teggin doo amub yool te la ngay def doo ci am doo ci am ak texe mooy échec ngay échec la lay jural teggin <laughs> waaw waaw nee na mënta waxu fi daare ni xayru kanzi wa xayru mahtaza bihi soisi waaw nee na lépp lu nu li di ko denc ay teggin moo ca moo lépp lu nit di tedde wala mu yëkkati mu cay eh, amee daraja hmm. wala ay garat hmm. wala ñu ko cay naw hmm. nee na ay teggin moo ci gën li annahu munawwirul janaani wa yujibul mathala dal jiraani gis nga nee na day day day leeral sa xol te day waral ñëpp sopp la di la waxtaane di la di la bége nga xam doomu aadama ni mu bëggee daraja waaw nee na daraja ji gën a kawe la lu ko gën a mën a may mooy ay teggin waaw nga mm-hmm. mm-hmm. nga xam ne noonu la jaare mm-hmm. daanaka ma tënk ko tarixatul adabi rahmatu saqir kal abi wal ummi wa tawxirul kabir wa jaxalu mislika ka nafsika sawa li wàcce xaaliqin ala al arsi stawa teggin yëpp boo ko boolee ñaari bayit yi ëmb na téere bépp mooy li mu bëggoon a wax dëgg la mooy da ngay yërëm ndaw waaw yërëm ndaw loolu boo ko defee koo gis rek jàppe ko ni sa doom wala nga jàppe ko ni sa rakk mhm. ñëpp nag mhm. loolu bu fekkoon ñëpp def nañ noonu mhm. koo gisit nga wekk ko maanaam jox ko cër ni nga joxe sa waajur loolu bu ko àdduna bépp defoon jàmm ne ñooy waaw wekk mag yërëm ndaw ba tey koo gisit nga def ko ni sa bopp dëgg la ndax nit boo ko defee ni sa bopp doo ko nax doo ko tiriyan doo ko doo ko doo ko def dara loo xam ni mm, bëggoo ko la ko def waaw bëggoo ko mm-hmm. kon mm-hmm. yooyu da da ngay ja da ngay jàngat ni sëñ bi mm-hmm. euh, tomb boo jël rek da ngay gis ni am na ci ak équilibre gu mat sëkk goo xam ni boo ko toppee rek mën na laa wan ni dëgg dëgg al wasatiya moom moo ko moom moo ko moom moo ko andi macha allah macha allah waaw euh, jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf ci leeral yi am na solo lool macha allah mel na ne leeral nga ne Serigne Touba euh, wasatiya gi lislaam jàngale mm-hmm. tam donn ci tam donn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak baatin mm-hmm. da ko dund dundin woo xam ne mm-hmm. ndax la ci jiitu mooy jàngale ko leeral nga ci laaju ci njàngale mi euh, boo xoolee fànn gu nekk rek da ngay gis ne wasatiya la ci doon doxale la ci doon doxal ko ci jàngale ko nag ndax bayit bi nga njëkk a wax wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita mooy hmm. bul ëppal hmm. bul yéesal waaye yemal ci diggante bi rek hmm. kon ki ëppalut yéesalut yam ci diggante bi kooku mooy ki ki ki ki sëñ Tuubaa bëgg am na li nga wax léegi ci wàllu xam-xam yi dafa am bayit woo ne daf cay wax ne ubashiru xayral xalqi bil xabti xidmatan bi aqdin wa fiqhin wa tasawufi lal jadal waaw mooy damay bégloo yonent bi salaa salaam ci bind ci hmm. bind téere xam-xam téere hmm. boo xam ne ci ci aqida laa koy jëmale mu la ci pas-pas yi nit ki hmm. yaa ci doon wax ci njëlbeen bind téere yoo xam ne it ci wàllu fiq lay jëm mooy jàngal nit ki ni muy teg ni muy jaamoo yàlla te teg ko ci sunna jànga bind téere yoo xam ne ci tasawuf lay jëm mooy jàngal nit ki ni muy sellale xolam ak jikkoom ba lu muy jëf yàlla képp tax mu ne waaye yii yëpp nag bu ma koy def laal jadaal du ma maanaam du ma ci werante waaw mu jaadale bi nga xam ne moom la alquran di tere du ma ko ci def te bu ñu xoolee ahlul kalaam Euh, bari nañ ay werante lool uh-huh. ci ni nga ko waxee léegi mu'tazila yeeg kenn ku nekk uh-huh. am nga foo féete uh-huh. waaye moom ci ahlu sunna wal jamaa nga xam ne mooy ñu tege ci digg bi nee na foofu laa nekk bu dee ci wàllu fiq itam da ngay gis ixtilaafaat yi ci am mu mu indi yu bare bare bare neen loolu itam néew ma ci bu dee mutasawifun yet gis nga sotaxaat yi yi ñuy def nga xam ne am na ñoo xam ne euh, am na fu ñuy ton rek dañuy def loo xam ne nit kese ñu dootuñu ko mën a atte mm-hmm. ba tax am na am na ci sax ñu ñu rey mm-hmm. ñoo xam ne loolaa tax ñu rey leen mm-hmm. te ñi leen rey mën nañ cee bañ a am bàkkaar ndax ci charia lañ koy teg waaye ñoom fañ nekkoon wér wuute naag foofu surtout nag fi ngay fi ngay gën a jàngate ak digg doomam ci moom mooy na fa ko raw waaye ba tey doo gis ci mbindam wala nga gis yi jëfam loo xam ne da nga naan bu doon bu fi charia nekkoon ne ko nangam wala nangam loolu mooy wane ne ku digg doomu la loolu mooy xekk ma alxuraan ne ba muy yuutal xikmata faxad uti xayran mm-hmm. kon kon xikma boobu la doon doxe mm-hmm. te loolu mooy na woon mm-hmm. alxikmatu daalatul mumin anna wajadaha axadaha wala anna wajadaha fa huwa axaqu biha xikma tamay xam-xam bu am njëriñ dafa réer ab jullit mu di ko wër fu mu ko fekk na xam ne alala ma fu mu ko fekk na xam ne moo ca yeeyoo waaye boo xoolee fi mu dul nii nit ñi li ñu dund nga xam ne saa bu ñu gisee ko civilisé ñu ñu jiñ ko keneen ne ab daa tubaabe bu gisee ko fonk waxtu ñu ñu bu gisee ko mën a liggéey ñu ne américain la wala lu mel noonu nga xam ne dañuy fàtte mm-hmm. valeurs yi l'islam am mm-hmm. yooyu yooyu yu am solo la waaye nga wax itam ne sëriñ bi euh, bokk na ci li tegtale ak digg doomam mooy foog ma sa fekk ñett daara lay boole mm-hmm. wax nga ko ci ni nga ko misaale ci sëñ Saalix te loolu ci sëñ Tuubaa la ko jëlee daaray alxuraan daaray xam-xam daaray tërbiya loolu day dellu ci li nga waxoon ci ne nit ki xel moo ko composé ak ak ruux mm-hmm. euh, bu dee xel mi xam-xam ko ci xam-xam lañ koy yar mm-hmm. bu dee yaram wi ñu yar ko ci tàggat ko ci nangoo liggéey mm-hmm. ruux gi ñu tàggat ko ci tudd turu yàlla ba sel ba digganteem yàlla dara du fa dox su ko defee lenn du wat morom lépp day day tolloo nga xam ne euh, lii du wat lii lii du lii du wat lee loolu de lu am solo nga xeet yi ibaadaat yi lu ci doon bu ci Sëñ Tuubaa ñëwee nam koy jàngalee ak nam koy leerale Euh, bu dee ci aqida nga xam ne aqidatu ahl ahlu sunna wal jamaa ni nga ko waxee boo ñëwee ci ibaadaat yi nga jël julli gis nga li mu ci wax da daan wax ne wax na wax ne mas nañoo noddu ndax dafa bokk ci ifraat wala tafrit waxtu julli jot nga nga bàyyi ko fi ne ci leneen wala waxtu waxtu yu jotagul nga gaaw di julli xam yooyu yëpp du bokk ci lislaam waaye wax nañ ne bu masa buñ masaan nodd lu mu jàppoon bana am na boo xam day xelli wargan yi bi mu yëkkatee baraada bi di xel rek ñu nodd mu daal di wàcc baraada bi mu daanu ci gaase mu jéggi ko daal bu ñu xasee nodd lu dul julli ji dagganatu te noonu la daan doxee nga xam ne luñ ko luñ koy liggéey lu nekk saa bu julli jotee dañ koy bàyyi wa ko bàyyiwul bu ñëwee day lañ ci yoroon def lépp da koy ko ni ni nga ko waxee nga xam ne ni mu ko joxe woon wàccuwaay xasida yaa xayra dayfin gi nga tudd léegi circonstance yi mu ko doon taalife ca géej gi nga xam ne bi mu amee ñetti at ci géej gi ama xëy sa circonstance bi métte métte métte waaye boo xoolee nam lam lam ciy wax ci biir xasida gi day mel ne ku ne ci biir këram ne ci biiru njabootam climatiseur yi di tàkk mu ne ci condition yu neex ci lay waxee xasida gi mm-hmm. euh, daan digal it ñu mu yar daan leen wax ne ku mën a boole koor geeg liggéey bi na ko boole ku ko mënut na bàyyi ko na bàyyi liggéey bi te woor mm-hmm. wax nañ ne sax ku ku ku ku ku ku daawul woor daawul def loo dara mm-hmm. kenn ku nekk da ngay bëgg sëñ bi di la liggéey loo ndax ci ngay jëlee ngërëm mm-hmm. waaye boo wóorul moom du la def loo dara du la yën du la laaj du def ci dara mm-hmm. ba ci ba ci liggéey mii mm-hmm. xam nga dafa bokk ci ëppal ak yées li ñuy wax ëppal ni nga ko waxee wax nga juñu nga ko léegi mooy topp turu yàlla ba tax nga bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi liggéey ba sa jëmmi bopp sax duuta duuta ci am solo misaal nga ko léegi ci sëñ bi ak kooku doon jàngi ma faatul bisri bi moo moo wax ne lu lu lu jaamu yàlla xeeti xeeti tudd yàlla yi lu mu baax baax baax hmm. liggéey ci jaamu yàlla la bokk hmm. waaw hmm. Euh, laa yanfau la ilmu wala la ibada bil akli xaram mooy nit ki maanaam la muy jaamu yàlla wala la muy jàng xam-xam du ko mën a jëriñ su fekkee ma ngay dunde lu xaraam ma ngay dunde lu lay tax nag nit ki di dunde lu léwut mooy ñàkk liggéey boo du liggéey da ngay da rek di for mooy li xew léegi nga xam ne ma baatu dóor rek lu ne am na euh, looloo koy waral waaye su fekkoon nag da ngaa sukkandiku sa bopp di liggéey loo am doyloo ko boo ñëwee jaam yàlla ba noppee nekkal sa liggéey subaan léegi tegee nga ci digg bi yaa ngi dundul di yem ci la la yàlla sant kon day mel ne loolu njàng dem si Tuubaa mu leer a leer a hmm. moo xam ne sëñ Sadio ñëw na ci ñu ngi jaajëfal baax di la sant bu baax a xam naa ñu dellusiwaat ci suñu Usmaan rek mu béggalaat mu ci xasida yi ñu doon dellusiwaat xam naa danañ ko laaj moom itam ci wàllu wàllu wàllu wàllu njàngeenu mag ñu njëkk ña ak njàngeenu léegi bi euh, comparé comparaison bi ci bi ciy am mm, ak it lu am solo mooy muy lu aj ci wàllu mokkal mokkal li jàng ndax gis nañ ne sànq bañ la joxe kàddu gi rek danga nga daal yëkkati te xooloo fi ngay li ngay jàng waaye jàngee ko ne ko borom binde loolu lu am solo la loo xam ne xëy na du ñàkk nga ñaax ci mbokki bi yi wala rawatina jàngkat yi. Euh, kon xëy xam naa. ñu tontu ci loolu tuuti rek. Hmm. kon xanaa te te yeelaat <coughs> comme niñ ko baaxoo defee. <coughs> waaw euh, sànq bi ñuy waxtaan ci njëlbeenu waxtaan bi. Hmm. duggoon nañ ci ponk boo xam ne sax dafa xaw a laal loolu. Hmm. mooy nan la nit euh, di def ba doon ab jàngat. ak itam sart yi nga xam ne. moo war a dajee ci nit ki. mu doog a doon ab jàngkat sart yooyu wax nga ko léegi maanaam euh, koo xam ne baatam euh, mënees na koo dégg daf cee bokk ndax loolu moom sëñ bee ko waxal boppam waaye beneen bi ci desit jéem góor góorlu ba dégg araf da cee bokk dëgg waaw xëy na xam xam xam lépp moom mm. jafe na waaye nga góorgóorlu ba ku la déglu xam ne yow mii kat yaa ngi yaa ngi def ci li ngay def. dëgg la ndax euh, dana waral ki nga xam ne moom bokkul ci yoon wi. Mm-hmm. te maanaam ci wàllu xam-xam lay dox. Mm-hmm. te sëñ bi li ci li muy wax lépp ci ci mbindam mii la ko waxee. Mm-hmm. kooko moom. yow yow yow yaay yaay yaay yaay yaay yaay yaa koy jox message yow. maanaam su soo jàngee mu toog di déglu. li ngay wax moom ci lay sukkandiku. maanaam bu dee lu jaar yoon la hmm. day wax alhamdulilah day sant sëñ bi nay nangam waaye bu demee neneen nit bi la dëgg la dëgg la kon yow yaa ya yow yow ab médiateur nga boo xam ne hmm. yow yaa war di message yooyu hmm. kon normalement xam gi daa war a nekk sa itte dëgg gàtt gàtt mënoo xam li nga xam ci beneen bi ñu des nag muy muy wér mas na maa am ci benn journaliste bu ma mas ne ma ci ci ñaari maanaam njàng eh, njàng mu dëggu ak maanaam njàng njàng mu njàng mu njàng mu njàng mu wér njàng mu dëggu ak njàng mu wér ma ne ko yow nan nga ko bëgg a déggee mu ne ma comme maanaam tey léeg-léeg nga gis koo xam ne day jàng hmm. nit ñi di fecc ma ne ko waaw mu ne ma léeg-léeg nga gis nit di jàng am concentration boo xam ne boo koy xool rek di dem. nga xam doo fa waaw waaw nga xam doo ko déglu da lay daaneel. Hmm. ma ne ko nag kiy jàng nit ñi di fecc di ko wër hmm. mën nay wax lu leer nañ ñi loo xam ne ki ci yëngu bi intéressé man na yëngu waaye yow mi yow mi bëgg xam-xam yow bëgg a a ubbeeku hmm. wala nga xam li sëñ bi wax nga diglu parole yi li ñuy wax parole hmm. di ko xam loolu boo xoolee ci musique bi am na ci tasaayir la rek waaye dama ciy jàngale rek hmm. parce que am na ñoo xam ne musique bu ñu koy déglu yam àndal yooya moo tax ñu di ko déglu ñoom ngir mu di leen di échauffer <laughs> balax bi waaw waaye am na ñoo xam ne bu ñu dee déglu musique parole baa tax la muy wax ci biir musique ba moo leen di jariñ mm, waaw loolo moo répété wu ci biir mm, diggante jàngkat bi ak li muy jàng mm. ak xasida gi muy jàng ma ko nit mën naa yërëmtalu di jàng waaye waxul dëgg maanaam li muy jàng jubut leerut day yàq bari na léeg-léeg nga diglu koo xam ne jàng mi day yërëmtalu ba mën na laa jooyloo waaye bu fekkee jàng nga yow boo digloo li muy jàng xam ne moom mënut da yàq dëgg la mm-hmm. parce que wax dëgg moom. mooy wax li sëñ bi bind rek loolay loolay dëgg. dëgg la dëgg la ginnaaw yaa ngi wax li sëñ bi bind. Mm-hmm. wax nga noo ko mën a waxee wax nga dëgg. Mm-hmm. kon fexe la xante woo fexe ba li wax moom muy liñ bind. te na ko sëñ bi waxoon bu ca yokk bu ca wàññi. loola moom bu amee. da ngay daal di wax dëgg. jàng moom. Euh, li nga xamante ne bii ne moo ci moo ci am solo dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. mooy nii ma la ko waxee rek fexe ba maanaam li nga wax hmm. maanaam kàddu gi mun hmm. mun mën a doon loo xam ne bu déglu ko am euh, kilifa gu mag goo xam ne euh, doomi sëñ Fallou la ju jigéen man damaa tudd turam sax waaye turandoo yi nga xam ni moom la ko sëñ Fallou tuddee kooko doomi sëñ bu mag bi la daf ma masa am benn bis ak kasu rajab mooy ñi ngay wax rek nga xam ne ñoo dugg si ci yoon wi léegi nga xam ne lu bari soppi nañ ko ci ñamut bopp waaye ku daan dund murituk sëñ Abdou Lahad ga maami sëñ bii toog sëñ Modou Moussa bàyyi ko fi sëñ Fallou bàyyi ko fi ba ci moom sëñ bi maanaam <laughs> boo boo boo jëlee ñooñu rek def leen référence ñii duñ la yóbbaale. dëgg la dëgg la ñii nag dañoo ñëw dugg ci cirque yu ne lañ dugg <laughs> jaxase ko. dëgg la man sëñ bi sama sëñ bi danaa dégg wax naan. waaw fi ne yoon wi liñ ci yokk toll na ne yoon ëpp na ko sax ëpp na sax yoon wi <laughs> maanaam xeeti jàng ni fi amoon yu démb yee Baye Matar Mbaye Baye Cheikh Wal Xataaba Baye Mut Samb ainsi de suite ñooñu ñëpp rax nañ seeni i jàng. dëgg la di ca teggi daal lii baaxut lii nangam nangam te loola baatin bi ci am kenn mënu la wax ni mu toll. dëgg la dëgg léegi nag ñooña nag ñoo dugg ci euh, son sonalit seen sëriñ si parce que dañuy ñëw ci biir kër sëriñ si occupé leen rap te ñi nga xam ne ñoo sant Mbàkke dereeti sëñ tubaa ji lañ yor mooy ñoom duñ fecc wëlëre duñ ñàkk duñ ñàkk kersa du ñàkk fayda du ñàkk jom duñ ñàkk dëggu nit mën naa war ci seen kaw di leen dañal di leen rey di leen def lu leen lu metti lool waaye doo dégg mu ko ñu ne oh ndax dañoo yor dereeti sëñ Tuubaa moo tax léegi nag ñooñu ñooy dugg ci biir euh, kër sëriñ bu jàng amee nag ñuy seddale hmm. naan li njàng mi mooy dëgg ak njàng du dëgg ak njàng mi nangam ak nangam. Hmm. ma amoon ci nag kaa hmm. waaw doomi sëñ Fallou jooju ma koy jàngal Kazu Rajab ma ñëw tàmbalee jàng ñaari nit ñëw ni ma. dañoo bëgg maanaam euh, jigéen ñi. ma ne waaw mu ne ma duñ wër duñ gamaat bi di fecc. ma sañ ngeen ko yéen a yor seen baas. man fecciloo ma kenn damaa jàng si. Hmm. mu ne ma waaw ma ma ne ko waaw mu ne ma ñaareel ba it mooy addiyee ji duñ ko ŋàbb ñoom di ko indi di ko jox jàngkat bi. Hmm. maanaam ñun ñooy dem di ko di ko di ko di ko laaj jigéen ñi. di ko jox. Hmm. ma ne ko loolu ba tey nangu naa. mu ne ma waaye bi ci des bi ñetteel bi nag ma ne ko ah ma bëggunu ku nu fool danoo bëgg ku nu jàngal. <laughs> ma ko ah boobu nag moom nañ koo seetaat. ñaari ñaari yi nga wax nag mun naa mën a ko mën naa ko nangu. Mhm. mun naa mën a ko ndax yéen a tànn seenu tànt waaye man may tamit am naa droit nii may jànge nii. Mhm. bu bu ngeen xoolee te xam ne neexu leen nii nii nii. Mhm. seen avance a nii sama oto ngi ne may ma ñibbi mbaa ma seeti keneen ku ma jàngale may sañ naa lool daan leen waaye nag ñu mal mën leen tay tay tay tay moom ñu naa mën leen du ko soppi. ku taxaw ci tànt bi ku ma ko mën a tax a soppi amul. daal di taaj. jàng jàng jàng jàng jàng ba ci digg bi soxna sa daanu. <laughs> billaahi. Hmm. wax naam bu seetaanee émission bi dana ma dana ma dana ma. mu daanu ñëw jël rajo bi. Hmm. te du ko ay wax sax sonal moom mënut ta wax ci mbooloo. waaye booba daa dafa dafa gajaram daal di ñëw ne ma sëñ Ousmane ma ne ko ah ma nii ngay jàngee moom la yàlla bëgg moom la yonent bi bëgg moom la sëñ Touba bëgg sëñ Fallou mi borom guddi gi moom la bëgg. kon de at eh, ko ah ma man ni daal di daal di eh, wut ab potu ndaa potu ndag eh, potu ndag laaj ci addiyee ba mu fees ko daan ne ma. jàng dafa li ma la wax léegi mooy pédagogique jàng da ngaa war a dugg ci mbooloo fekk mu sedd. nga yëngal la nga fexe am loo dugal yow loo teg loo xam ne dana tax ñëpp yeewu ba mën la diglu. te du caagin dañ naan di yeel keeg. déedéet loolu aw aw la. Mhm. loolu da ko war a man yow. Mhm. comme ya war war a war a jaxasoo mbooloo mi. Mhm. mu ne ma soo euh, euh, soxna diw doomi sëñ Touba la. moom la ma sëñ Fall tudde bu kasu rajo masanaam wala màggalu Touba wala gàmm wala du xadar daf naan ana ana ñoom digu ñu ne ñu ngi nii mën a toog leen kuréel fii ñu kuréel mën a jàng leen jës bu ak mu waay bu ak mu xaddimaat ñu ne waaw mu ne te ngeen jël mbool si boole ko ci mbool si. Ah, yëngal waaw. daanaka xam nga lu taxoon ma daan def loolu maanaam mu ne daa bañoon kenn kenn di nelaw ndax xasida ku ko dégg lim lim la mën a lim mën a apporter sa yaram sa jëm ak sa ruux loolu xasida mënu ko. Mhm. mu ne ma. daf nu daa wax boole la defe naa ne yow ma ne ko mu boole goo ci mbool si. <laughs> te <laughs> ma ne ko waaw mu ne ma kon li nga ciy déggee mooy. Mm. xaside yi boo bu ko dee jàng. normalement war ngaa war ngaa am pédagogie. Mm. maanaam fexe ba. Mm. porté nit ñi ban dégg ko. dëgg la dëgg nag na fekk li ngay wax di dëgg. di dëgg waaw bu doonee dëgg rek. day daal di neex. dëgg la euh, maami sëñ bii. di sëñ Abdoulahat yàlla yàlla doole ay leeram man yàlla dimbali woon na ma ma am ci tawféex ji mm. bi may tut tànk di tàmbalee jàng ma dem siyaara ji ko mm. booba dañoo teg fii ab daayira boo xam ne ñetti dërëm lañ daan teg mm. ku ñuy wax mut jaw moo ko jiite woon ak Pam Ñang kenn mu jaw mi ngi Espagne léegi Pam Ñang mi ngi fii euh, euh, ci Touba Jéemu ab communicateur traditionnel la lii ma lay bëgg a wax bi bi ma ko sëñ Abdou Lahad di wax boobu maa moom a dend booba sëñ bi ñi ko doon siyaar si dañoo bari lool daayira yu jóge fu ne fu ne hmm. mu jekki-jekki rek ñun ñuy teg su ñetti dërëm mu jàng ñu ne ah, nañ dem siyaare ji sëñ Abdou Lahad hmm. daayira jël ñetti dërëm yi def ko ci benn kawas <laughs> daal di fas kawas gi hmm. maa ca mënoon euh, sindi ak jawartu su ma dee jàng jawartu gars yi di aw ila yaqaadalaahu maalam yàkku ni su ma dee jàng euh, jàng ñuy ñuy aw yàllaahu wala waxtaxlanaa kulla baabin kunta faatihu ñu dem yàgg fa lool ba 11h midi sëñ bi jékki-jékki ni tëll duma ko fàtte mukk keroog ay kawas la sol yu yam fii. waaxu waaxu mu dëgër mu tàng keroog wallahi al azim bi mu agsee ci suuf la toog dane faraañ ni nii tànk bi daane ana ñii fu ñu jóge ne ko ñii day Mbàkke ñoo jóge Kaolack mu ne ñii nag ne ko ñii de Mbàkke ñi ngi jóge euh, Louga mu ne ñii nag muy ñun xale yi nga xam ne ñenn ñi seen bopp yaa ngi karaas weextaal la ñenn ñi ay nel lañ def ak weexaay yeeg xam nga yëfi ah, yëfi dong mu ne ñii nag hmm. ñu daan ne ko ñii de ab daayira lañ fi indi hmm. mu na ñii ñëw muy yéen ah. ñun hmm. bi ñëwee ba toog ci kanamam nii mun daan ne ana ana ana ana luy seeni tànk ñu ne ko ñun de mbàkke dañuy def guddi àjjuma gu nekk ñu dajaloo kenn ku ne teg ñetti dërëm ñu tàngal ci café li ci des ñu daj ñu doon ko dajale loolu lañ dajale moom mujj yàgg nag ñu xam ne ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ko moom hmm. ñu ne woon nañ ñëw indi la ko rek nga ñaanal ñu tawutal ñu aw tur est-ce que biñ ko waxee lool dana ana nu ngeen ana ngeen koy defee ñu ne ko danañ def buñ dajaloo nii ba guddi rek ñu ñu ñu mawlut buñ mawlutee ahbabtu euh, fataha malaktu fosti daal di dugal suñ jàngkat bi mu daal di jàng ñun ñëpp ñu aw ñu yeewee ko mu ne ana jàngkat bi ñu ne ko ñu ne ko Pam ñëg mi ma lay wax daal di koy joxoon daal di ko mi ngi nii mu ne ma topp si ma topp si mu ne ma yow loo loo looy jàng ma ne ko mën naa jëwartu mën naa sindiidi mm. dafa muuñ barki sëñ Tuubaa daal di ma dégg ma der yëkkati ñaari ba ñett ciy jëwartu mm, waaw da booba sax dama dama dama ne ilaya xaadalahuma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini lastu asukku abadan fi kawni jaaral badi ajaban lil kawni ina allazi min al ilahi ustu xaabaanil kawni wa fi fustu mu daal di nii poos bi daal di génnee miskit mu dëgër mi ñu daan wax miskitum laay ñaax lañ ko daa wax bu njëkk mooy miskit mu dëgër ma daan nekk ci paquet bu sorn bi mm. te daan nekk un kilo mm. ci la ne nii génne ci ab ab nëq jox ma ne ma waaw góor na ngeen ci góorgóor lu baax yàlla na leen ci yàlla defal ndam. allahu akbar ñu ñu ñu ñu daal di xam nga li ma importance su njàng mi rek laa la bëgg a andil. dëgg la mhm. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy njabootu sëñ Touba. Mhm. ñoom ñoom ñoom la xasida mën a def noonu. Mhm. dëggu ga moo tax. waaye bu fekkoon ne tey maanaam euh, teg euh, maanaam wax nga ko noo xam du noonu. ku ko xam moom. dalee daal di jubbanti fi saa si moom. boo liggéey dee ko waxee nii la lay wax. dëgg la dëgg la. waaw kon nag importance su njàng xasida daal. Mm-hmm. mooy yow mi ci bëgg a dugg yow. Mm-hmm. te nga xamante ne bii ne fas nga ko yéene def si métier. Mm-hmm. bi ci njëkk mooy. na sa baat neex. bi ci des bi na nga mokkal sax njëkk. boobu sax moo war a njëkk. mooy na nga mokkal. mokkal waaw waaw fexe di def itte ci. di mokkal xasida gi ba bu làmp bi coupé nga mën a jàng te doo xool téere. waaw waaw don donte xay suxiraat aw kutibat aw nusiraat am na it mm. fexeel yow mokkal ko ba boo doon jàng tey courant bi coupé du la tax a ñaan yow mm. waaw <laughs> dégg nga baax li ma wax loolu moo tax mm. kon maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci bëgg a dugg da ngeen fexe di gëstu di durus di mokkal. Mm, surtout durus gi waaw waaw durus nag mooy tax a mokkal. mooy tax a mokkal dëgg la da ngay fexe bay durus. Mm. waaye nag wax dëgg yàlla bëgg koo jël moom def ko affaire artisanal moom. Mm, nga xam ne maam bâche bi yàlla booleeg moom bâche moom. loolu moom du jëm kër ta mbuux moomu dugg ci ci li may wax kat. maa ngi jégalu sax ndax mais question bi moo am doole moo am solo. dëgg la loolu moo tax maanaam faw saraa bi yaatu. parce que tey jii. lii ngeen may laaj ni tey da maag sëñ Saliou yi muy toog dañoo bokk tem dëgg la ndax li li muy waxtaane nii mm. am solo gi am solo mm, digg doomu maanaam maanaam digg doomu googu mm. loolu loolu dafa valable ci ñëpp partout <laughs> dafa valable pour tout le monde njàng mii tey jii lu bare bare bare dugg na ci tey ji li nga wax léegi bëgg a tedd rek te doo te doon te nanguwoo liggéey dëgg a tedd te nanguwoo liggéey. Mm-hmm. mboolem ñi fi siiw ñëpp boo leen laajee. Mm-hmm. tey ji ñu doon ay jànkat. Mm-hmm. koo ci laaj mën na leen la professionnel nangam laa. dëgg la nga xam ne dañoo dañoo ba ñuy tàmbali dañoo boole. dañoo dem liggéeyi man mii ngay waxal. Uh-huh. certificat de travail troisième catégorie bu métallique laa am. macha allah tey jii tey. Mm. boo ma tegaloon tey type carré trente fii tey wala euh, type type tangalaire. Mm. wala profilé. ma tracé la ko léegi antaajeel la defal la léegi cadre bu taxaw. fii ma taxaw fii. wala nga indi ma pince suude ma suude ba nga jàpp ne euh, souder laa man waaw waaye nag dama ko daan booleeg su ma su ma dee liggéey tam mm. su ngoone ma dem jàngi uh-huh. bi ma demee ba xam ne njàng mi moo ma nangu man mm. xamal ma ne man lii kat mm. mënutoo ko booleeg béyte mi ci laa dem tab bi ma bi ma génnee li ma métier waroon defal njàng mi defal na ma ko mooy mooy tabax naa ci kër yor naa ci oto takk ciy soxna ak di ci faj aajo macha allah kon loolu la xale yi war a war a war a privilégié ci loolu waaye li tax maanaam loolu amut moo war a li li ci dugg léegi dugg ci dëgg la la mooy fi mu toll nii ñu ci bare bare bari buñ leen xeebee ñi ci dugg te doonuñu doonuñu ay jàngkat te bëgg koo doon ngir star gi loo loolu loolu moo indi coow li moo indi problème bi. nga xam ne ñax googu dama. mooy li ma la léegi ne la secteur boo dugg. maanaam euh, oto yi. ñoo indi problème bi ah, waaw mm-hmm, mm-hmm. dési déséquilibre bi am <laughs> mooy ñàkk a bokk ci mbir mi ak ñàkk koo teg ci yoon mm-hmm. ak ñàkk koo dem saytu ji ba xam ko ni nga ko war a xamee loolu moo ci am mooy sëñ Ousmane Diouf day sol jasineer wala mu yor 4-4 wala nga gis ko mu nga ñëw mu taxaw ca kaw di wax ak yow mm. tam xam ta nga xam ne lii muy def mm. lii mu yor xasida yi moo ko may mm. nga ne dama koy am tay tay tay tay tay ah, di jaaroo fi nga bëgg a jaar waaw dëgg la dëgg la loolu mat a bàyyi xel loola nag moo waral yoon yi nga xam ne moom lañ ko bëgg jaare pour amee ko ni mm-hmm. yoon wu neex waaye la koy jaare dëgg la dëgg la dëgg la loolu loolu waral na lu bari na lu bari mooy mm-hmm. tay mm-hmm. am na ci ñoo xam ne bala ñoo dugg ci baas dañuy puudaru subhanallah ca góor lañ puudar la ñuy yor ci seen poos puudar làqatu ne dem poudre loolu maa ngi koy doog a dégg. Hmm. boo dee seetaan image yi di nga xam li ma la wax. loolu de maa ngi dégg. waaw loolu bokkutoon ci jàng. na ci ñoo xam ne nii dañuy xeesal. Hmm? waaw. ci yàlla yor di xeesal. loola bokkutoon ci jàng. am na ci ñoo xam ne nii. dañuy wéef seen kaawar. waaw waaw yii nga xam ne jamaïcain ye koy def. ak ak ak maanaam musiciens yi nga xam ne. sax du musiciens yi sénégalais yi maanaam musiciens yi nga xam ne ñoo nekk dans l'extérieur mm-hmm. ñoo koy def waaw ñooñu mm-hmm. ak sàppoon na yeeg chinois ak ñu demee noonu ñoo koy daan def am na ñoo xam ne noonu la ñuy def mm-hmm. am na ci ñoo xam ne bu baas bu bu bu duggee boo duggee ci baas jigéen ñi féete nii góor ñi féete nii feeg jàkkaarloo wuñu jigéen ñi ñoom <laughs> mënoo leen a jàngaloo parce que espèce yi ñaalo koy naa ko yin war a def jigéen ñi lañ ko war a porter parce que ñoom loolu lañ gëm pour ñoom seen nga xam ne léegi maanaam maanaam maanam maanaam da ngay da xool sax nit ki ba mu jàng maanaam ki nga doon tuddee yow. ni ni ni ab jàngkat nga ko waroon a mën a jàppee. doo xam sax da koy wax ne communicateur traditionnel la. wala wala moom moom maanaam ab mannequin la wala. doo xam sax lan nga ko war a mën a. porter ko seet léegi ñoo ah, xam ne ay jàngkat la ñu. voilà ñoo mujj soppiku. waaw. léegi nag léegi nag. loola moo la war a xamal ne la kon ñoom doon duñ ay jàngkat dugguñu woon ci ci ci liggéey bi pour doon jàngkat mm, dañoo dañoo am luñ bëggoon luñ bëggoon a régler mm. te xam ne fii la fii la gën a jaare fii la gën a gaawe ñu bëgg ko faa jaare <laughs> kon mbir mi te la muy jur mooy buñ buñ paree foofa ci jataay booba noonu noonu rek daal di fay ko koo xamante ne bii ne ñoom ñoom ñaar ñëpp hôtel la wuti. Mm. mbaa ñu wuti ab ab Euh, euh, euh, auberge mhm. wala néeg boo xam ne buñ àggee la cay mujj mooy mooy yàlla subhanallah moo moo cay mujj mhm. kon kooku ñooñu duñ ay jàng sëñ Ousmane dama dama dama dama jàpp ne maanaam jàng maanaam ñàkk dëggu ci njàng mi waaw ñenn ñi dañ koo teg ci wàllu maanaam topp air bi hmm. ba tax xasida gi ni ko war a jàng ci wàllu ci wàllu araf yi ni ñu ko doon waxee sa topp xam nga dañuy topp air bi ba araf yi ñu di ko bàyyi waaw ñu war a sàdd duñ ko sàdd lu ñu war a xëcc duñ ko war a xëcc dama jàpp ne foofu la waaye li nga ci leeralaat nii moom du du noonu xam nga uh, loolu mooy li ma la wax léegi hmm. ñi nga xam ne ñoom ci boobu ci ci yoon bii ma la wax léegi ci lañ jëm hmm. ñooñu juguñu woon pour doon ay jàngkat ci yàlla sama waajur wu góor man yàlla na yàlla doole ay leeram muy sëñ Abdoulaye Diouf mm-hmm. a daa wax ne ma mm-hmm. xam nga jàngatu xasida kan mooy kan mooy nawleem kan la war maanaam kan la war mooy référence am moom la war a teg bët mm-hmm. ma ne ko amul ah, ma ki sant Mbàkke daal dina ab jàngatu xasida bu waxee dëgg di jàng xasida ni mu ko war a jànge teg ko fi mu ko war a teg sàmm boppam ni ko war a sàmmee ma ne ko waaw mu ne ma bu bu ku sant Mbàkke toogee fii wala ku sëñ Tubaa defar muy ab seex toog fii faj aajo ba jóg yow jàngkat bi nga ñëw toog hmm. ñu indi la aju mënoo mënoo ko faj hmm. ma ne ko ah ma waxoo dëgg. dëgg la tal tal loolu na ab sew sew mooy mooy mooy maanaam njabootu Sëñ Tuubaa gi lañ war a teg bët. waaw ci wàllu jikko ak doxalin. ci jikko la loolu la ci jublu. waaw loolu la ci jublu xam nga ñoom duñ morom ñii duñ morom. li ñii sax suñu toogaay bi xam nga ne. Euh, maanaam lii rek ko waral mooy li ñu wax ne ngànt day am ci jotaay. Ah, waaye waruñoo sol ma xam ne ci kanamu Sëñ Saliou mii waruñoo toog moom ci kaw loolu moom nañ ñoo ngi ko ko jéggu sax nag ah, bàcc ah. waaye li la bëgg a wax rek hmm. mooy mooy li ma ci bëgg a jàngal mooy xasida maanaam dafa nekk antivirus boo xam ne saa duggee ci yow lépp lu dul yoon wala lu baaxut ci yow xasida waru ko faa fekk moom moom da moom da koy dégaasi mu génn. dëgg la loolu mooy taxliya ak taxliya gi mi def waaw kay da lay da lay jombloo. waaw yu bare bare mu ngoog du ko def ci yow mi ngi noonu nag. Hmm. waaye nag donte sëñ bi dafa wax na itam. Hmm. asbil sutóor yi. aslih umuri kasir xuyóori bilaa ki daa i yow loolu li nga ko koy fay mooy nga jub ya ngay wuti fee ngir bëgg a jàkkaarloog ñeem bam bam bëgg laa jural nga doon ab ñaala goy naago kat bu fekkee dëggu nga te teg ko ci yoon te conserver sa bopp nii ko sëñ bi wax rek sàngal ma sama sutura sellalal samay jëf mm. bari leel samay xéewal mm. ci lu ak coona yooyu la la sëñ bi defal waaye nag bu fekkee maanaam da nga ko duggee nag ngir yooyu moo waral yi ci yi am léegi fi ne bari na sax ñun yi nga xam ne ñun daanaka euh, les années quatre-vingt-neuf ñun ñoo ñoo ñoo génnoon doon di jàng doon ay jàngkat di ñëw comme niñ ko waxee ci tàmbali bi nga xam ne la départoon ba fii hmm. boo seetloo sax ñun daanaka maanaam ay programme lañ yor di ko jàngi maanaam ñi xam xàmmee di ñu jël waaye boo seetee li nga xam ne nii moo mooy mooy mooy mooy plein bi nga xam ne waaw nga xam ne moo jëm ca wàllu réseaux sociaux yaag yenn écran yaag ya ca des mm-hmm, mm-hmm. yooyu mm-hmm. ñooña la ñuy jël maanaam ñi ngay pour pour pour pour pour tënk boo seetaanee télé boo seetaanee télé bi di ko seetaan doo ci xam ne mukk mukk jànkat yi xamoon yow ah, doo leen gis. dëgg la dëgg la ñi nga xam ne fu fu fu borom alal jóge ñu ñu. ñu bees ngay gis. ñoo xam ne mën nañoo toog fii jàng fii. Mm. nga yuuxu léegi ñu génn nga gis ab ministre ab génn ñu topp <laughs> ci lu wér ñooñu ngay gis waaye nag gis nga loolu taxut la teewut la daan baax ba tay ba tay ba tay mi ngi baax dëgg la la mhm. ba tay mi ngi baax mhm. la da la baaxutoon démb ba ndëgëni si dootu baax mukk ci yàlla sama baay moo ma ne xam nga sëñ Tuubaa lu taxoon mu mu teg xaside yi mhm. xam nga lu ko waraloon ma ne ko déedéet mu ne ma mag mu baax moo ma ko wax fekk boobu damaa nettali gént gu gu doy waar. Hmm. comme li nga doon wax léegi. Hmm. mooy ñi jàpp ne soo dee jàng nit ñi di way di fecc nangam. Hmm. ñooña dañuy fo déedéet. loolu de isa katabtu tazahar sul baaqi wa sabahat malaykut ci baaqi waaw lay yëngal aras ak malaayika yi ak nañ ak nañ mel xam nga sëñ Ibrahima wax ko ne ko mënoo ba doon malaayika malaayika moom <laughs> kooku moom <laughs> waaw te mënoo weesu nit ñi waaw lay yëngal du du bàyyi doomu aadama mais nag dafa am noo koy defee mooy man na yëngu di neex ndax sëñ bi sax boo seetee ci ci nim tëgge noonu la noonu la ko tëgge xam nga bismil ilahi yan muuluhaayi bilaa mën naayi walantihaay loolu dafa am ay mawasin la waaw voilà ay mawasin la ah. waaye nag du tax nag nga topp ko yow wala nga mën a way ba tax maanaam ngay bàyyi wax ja parole ba dafa am solo parole ba parce que normalement un un un centre religieux war naa toog di jàng ti benn pëjëm fukki nit wër ko trois yay fecci parce que seen dégg-dégg la trois ya di jooy parce que seen dégg-dégg la waaw quatre quatre personnes yee toog di note di note mooy bayit yu ngay wax di note di ko firi tey jii dal na ma ci fii sëñ Muntaxa di woore ci kër sëñ ba tey mm. ñuy jàng xuqaa ah. ma toog am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi fettu suuf bañ di leen calmer pour bruit bi la bañ mu bari mais man fi ma toog man sama rangoo ñu ngi bëgg tuur tuuru ndax xasida gi ñuy jàng ak li ma dégg mu di ko wax ci biir ak ñamey nett li kon loola mm-hmm. tamit daa war a am mm-hmm. kon jànkat bi mën nay jàng nit ñiy fecci mm-hmm. ak asar xolle déedéet garaawul mën na caa bokk ndax kenn ku ne ak ni koy yëge am na ñoo xam ne jël suñu daanoo sax dañuy jooy waaye am na ñoo xam ne bu ñu daanoo dañuy ah, man daal na ma man man gis na man jàng naa fi bëram nit di ree ba kottuma te daa daanu te biñ ko xëppee ndox ba mu toog barke borom Tuubaa boo ko timee da nga naan ci daroon jooy sëmm la def kon nag wërta loolu mën na cee bokk mm, mm. waaye nag bokkul ak lële bokkul ak caaxaan waaw bokkul ak bokkul mm. lii mën nga koy def ba noppi wëlbatiku muy ànd ak yii ma la wax. ndax xanaa kon mooy innamal jeex na tàkk te mooy <laughs> waaw. waaw innamal amalu bin niyaat waaw pas-pas ba rek. pas-pas ba pas-pas ba. Mm. la laaj. waaye euh, jànkatu xasida boo xam ne daa dugg ci xasida yi ngir liggéeyal ci sëñ Tuubaa. Mm-hmm. moom maanaam moom boo ko bu ne bu toogee nga ko jàkk nii xool ko. Mm. da xam ni kii moom mi ngi jàng xasida ndax yii la koy jural mooy maanaam dana amuk taalibi mm-hmm. dana lewet dana yaru dana baax dana woyaf dana dëggu te dana am xayba tamit dana am fulla mhm. kenn du ko yab ah, mhm. man fi mu toll nii ñu bari dañ ma koy wax mhm. dañ naa ma yow maanaam yi dajee ci yow maanaam boo génnoon ci yii moom tuwarkal la ma ne leen mën naa ko te it am na ci famille bu ma bokk boo xam ne bu fekkoon damaa topp ya fami ba baaxoo. Hmm, kon doo doo doo. dana garaaw. dëgg la ko boolee njàng mi moom bu soobee yàlla man na maa lijjanti sama bopp. Hmm, ñu naa mel waaye boo léegi bu ma jàkkaarloog sëñ Touba mi nga xam ne moo ma seppee woon ci sama biir askan. Hmm. def ma Ousmane Diouf jàngkat. bu ma dajee moom boo léegi la laa koy wax. kon ñu naa mel leen cinquante mille yu yu yi ma mën a am ci biir fii. moo ma gënal un million bi ma ma a am pour pour trente minutes. ma dikkal la li li sama baay wax ne ma xam nga lu taxoon sëñ Tuubaa ma ne ko waa ah, mënu ma ta euh, sàkk nañ koy jàng hmm. ma ne ko ah, ma sëñ Tuubaa nekkoon di di sanc ay dëkk di ko sanc lu bu seexalee juróom-ñeen fukki nit gorloo leen juróom fukki àll juróom-ñeen fukki àll hmm. ku ne wutib dëkk hmm. ma ne ko waa ah, mënu ma léegi nag xasaa yi di ma ko waa mënu ma gi durus nii ma ne ko waaw mu ma daa am pay boppam jàng gi yëkkati daa am pay boppam bokkuñu hmm. suñ dee fay kii durus. Hmm. juróom kii hmm. kii kii kii kii yëkkati moom téeméer lañ koy fay. yaa dëgg la daa mel ne alxuraan sax bi muy tegale noonu la ko alladina yadkurullaha qiyaaman na wa ala junubihim mu noonu léegi nag mu ne ma dafa am ab jànkat boo bu siiw sax muy bàyyi seexloo bàllaago man naa ko tudd bi mu wàccee ab liggéey daa kilifa gu mag gu sàmm gu ne ci dëkk bi goo xam ne ab taalibe moo gént ne ko gis naa Seex Lo ñu wan ma ñaari taax benn bi xaalis la ba mu àgg benn bi nag dañ ko def jamaa ba mu àgg ñaar yëpp Seex Lo ko moom kilifa gi ma lay wax nii gu mag la nee na mu ne ko mu ne ko mu jaaxal ma loolu ma ne naa la ko laaj mu ne ko xam nga lu tax maanaam ci tënk rek li tax ñu ñu ñu ñu ñu jox ko ñaari taax yooyu. Hmm. mu ne ko waaw mu ne ko mooy taa boobu xaalis bi. Hmm. bi nga xam ne gàll la. Hmm. boobu bi muy jàng tarajo amut boobu lañ moom lañ ko fayee. xam nga seexloo daana def bu masaan di jàng foo ko fekk ab nel la daan waaye doole la daan jàng rajo amut. masaan a jàng fii day yebal benn aw katam ne ko toppal yoon wi jëm jumaa ja ma noppee dégg nag ma ko wax. nga xam ne man mën naa jóge fii di dem ba jumaa ji di ko dégg waaye bu àggee ba ci biir jumaa ji dégg ko bu wàññi ko da ko naan ah dem naa ba ci biir jumaa ji de foofu laa mu mujjee dégg mu yokk baatam ngir jàngee war a mën a àgg wentiwit mm-hmm. mu ne ko nag liñ ko fayee mooy bi muy jàng rajo amut mooy gal bi mm-hmm. waaye bi muy jàng nag te rajo am nga xam ne rajo bi mën naa dem eh, kilométrage yu bari ci lañ ko fayee nag taaxum wurus mii maanaam moo moo moo mooy kii bi. Ah. mooy jamaa bi. lu sa lu sa baat gën a jëm kaw seytaane gën a daw. voilà léegi nag sama bàyyi ne ma looloo taxoon sëñ bi daan bu bu mas boo masaa sanc ab dëkk ba noppi. Mm. da ngay fekk ab jàngatu xasida mm. nga ñëw uh, seral uh, jël ko indi ko sa kër ca dëkk ba. Mm. seral xolam yendoo ko berndeel yëkkati addiyee jox ko ba xolam sedd. mu fanaane laa jàngal bañ julli fajar. ma ne ko waaw mu ne ma su fa su fa bàyyi koo ma ne ko waaw mu ne ma. la nga fa doon dàq daw la nga fa doon ñoddi ci njariñ ñëw dëgg la seytaan moom lu koy dàq moom xam nga ma bari na dëkk yoo xam ne daa nga dégg rab wu leen sonal wala jinne hmm. ba sa ba nga boo ba nga déggee ñu fay jàng xas nga ko fa mujj a dégg dëgg la si ko wut daan ne ma ne ku ko ku ko gisewut nii hmm. ma ne ko waa mun ma xanaa jàppe ko poñaxtiit mii hmm. xamoo luy xasaayit dëgg la ma ne ko ma kon yow maa ngi lay digal man la ma ko waa ma yow jàppe ko nii macha allah moo tax nag man loolu mooy sama philosophe xëy na nag ñu bari bu ma masaan di jàng xëy na danañ am nuñ koy déggee waaye li ma la léegi rek nit ku nekk xas du rek waaw maanaam dagay ngay am ak jubluwaay mm, objectif waaw mm. pédagogie jàngale itam mm. dafa bokk am na am na ci jàngalekatu arab ak professeur français ak ak yana mel waaye am na ci njàng mi it la waaw man nag maa opté man hmm. ginnaaw yàlla daa dogal maanaam bi ma tàmbalee jàng hmm. ñu bari dañoo jàppoon ne euh, loola laa man waaw te man booba li ma ci jublu mooy hmm. damaa bëggoon damaa bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax sama waajur dadul gone te daa bokk ca muridu jëkk ya te nii la wax léegi dama ko doon mooy sama yaay ak sama baay dañ koy def kon man warumaa yem ci toog di jàng noonu moo waral ñi nga xam ne ay kaana lañ hmm. wala ñu doon maanaam ñoo xam ne fonku ñu woon njàngum mag ñi te man bugguma woon mu réer ndax ñam naa ko ba xam li ci ne hmm. loola moo waraloon nag bu ma jëlee eeru mag ñi bu ma ko tegee ba noppi damay wut loo xam ne gone yi duñ ko mën a ñàkk ma dugal ca biir waaye nag soo ko seetantalee da ngay xam ne dëgg la mooy yi may nag ne ko panget ak yooyu yi ngay dégg <laughs> xam nga leen waaw dama leen a këpputal ba jàpp leen mooy ne ko panget xam nga su ma ñëwee naan ne ko panget xam nga da nga naan seet Ousmane Diouf moom li muy ne ko panget ji lay déglu ji man te ne ko panget ji dama naan lislaam ji sax sànku na woon hmm. bambaa ko dab ci biir yi noonu ne ko panget nangu ko ndeysaan hmm, panget jooju ngay waaw ne ko panget jooju nag laay fexe ba maanaam euh, euh, ki euh, waaw fexe ko formé ba nga xam ne yow dana la intéressé ba nga ñëw toog bu ko defee doo mën a muñ li may njëkke yow ndax ne ko panget ja ngay xaar su ko dee nag ci ngay comprendre lii may def ba boo liggéey. Hmm. boo ñëwee da ngay mën a diglu yëpp. loolu loolu loolu lañ naa wax ci bu njëkk ba benn rajo rek amee muy RTS. waaw saa bu xam ne tàgge ba la ñuy bëgg a déglu. bu ñu ko fayee mën naa mu raw leen. waaw dañuy dégluwaale musique bi ngir xaar tàgge lépp la ñuy bi. Hmm, hmm. loola nag. loola kenn ku nekk philosophe boobu nga war a am. Euh, yàlla yi euh, dimbali na ma am naa ci réussite. mooy alhamdulilah bi ma génnee soxna jaara sa gono yaa ngay mooñ di na ñax na ñaxe bu sa baari moo ayatee a ngi jamax jamaxe fii ne loolu xam naa dañ ci yow ndax ndax day bari ñu la goo xam dañ ci tagg soxna jaara waaye ñëpp xamewuñ ko noonu moom la Ablaye Ñang doon jàng mooy bisimilahi téemaa jóg way fi ngeen gilin si newey hmm. njuuma jommalul boppam soxna jaara moo dib day hmm. Ablaye Ñang mu loon jàng maam maam Samba Jaay moo ko jàng man mii sax may nañ ma ci euh, soxna ci dë ci dëkkam <laughs> ab sëtam lañ ma may. waaw. Mm. Euh, Ablaye Seck jàng na ko. Mm. mais nag sëñ Bay Jaxat da ne kuy def lu ñëpp di def doo man lu yem fa nu ku bëgg a raw da def lu mbooloo mépp naan lii jafe la. loolu it xam nga doon naa ci bëgg ñëw sax. waa euh, jànkate aw yi nii dama seetlu ne. Mm-hmm. man ci li ma ci li ma seetloogoon ci li ma bàyyi xel mhm. mooy mel nam yow laa ci gis jàng way sëñ bay jaxate nag ku dëgguwul doo ko jàng la <laughs> sëñ bay jaxate mhm. sëñ bay jaxate moom ku dëgguwut doo ko jege doo ko laal lii firnde loolu sax mooy sëñ Abdou Lahad dañoo wax ne bi muy bi muy jàngaloo Abdou Lahad Touré way sëñ bay jaxate yi da ko ne mhm. ku dem ba kenn ñemeetu laa wax dëgg da ngay jël dëgg teg ci sa kanam waaw ah, sëñ bay jaxate ku ko déglu mu wax la dëgg def naa ci euh, préenregistré boo xam ne moom mi moo ko enregistré mm, mm. muy pexem yàlla moo gën pexem nit ndaxam ah, boobu xam nga fa yàlla yi fexee yàqkat yëggu fa yooyu fi mu ne jëmi am na ñoo xam ne la ñu waaye maanaam mais dégluwuñ wax ja ah. te nee fa yàlla yi fexe raw na bët raw na xel mm. fa muy yokkee nit ay bañam xandu fa xanda lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa ku yor say yëfit faw day mujj ñëw ci yow te naan lii ma yor faf ko jël sa yëfa daan ne lu saytaane ak nit di tee am dafay lu tukkee ci nit ta say bañ na fa waaye lu tukkee ci yàlla ak yeneen ba jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa léegi nag soo bëggee jàngal nit ñi da ngay fexee ñëw ba tolloo ak ñoom mm. bu ko defee maanaam ngay ki moo tax nañ euh, mañax mañax jooju mu ngeen ne mm. yàlla dimbali ne ba ma tuubloo ci ay chrétien man ñu dugg ci lislaam ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne hmm. xëy na temps bi duñu ko may mais kon dinañ mën a <coughs> gën a yaatal bu baax a baax daal waaye euh, importance bi daal uh-huh. mooy kuy dugg ci xasaayid yi uh-huh. mokkalal uh-huh. tey durus tey te te lu adduna nax nax nax ak lu lu lu lu média bi yomb yomb yomb yomb bàyyil xel sañ tubaa mi ko moom te xam ne ab liggéey la te fi may tëjee jox la mooy am na bayir wu ñuy jàng ci euh, mawaahi bu naafi hmm. jàngkat yëpp dañ ko war a jël di ko décortiquer te dégg ko mooy antal karimu anal xadimu daaran uddiimu fii ka sanaa yi lu mu ko wax yow aji tedd ji maay sab liggéeykat kañ diirub jamono hmm. ci tàgg la lay def hmm. ma ne leen nag jël leen daaran uddiimu fii kasanaay sanaa man ni ma ko dégg mooy ab société la boo xam ne sëñ Tuubaa mooy borom société bi ndax da ndax ndax engagement la loolu. employé waaw mm. da ko ne diirub jamono ci tagg la laay dëkk. Mm. te tagg yéen xam ngeen pàcc yi am. Mm. mooy bind. ak wax. kon moom bind na ba pare mooy écriturien bi. ñun ñun médiateurs yi la ko bàyyee. Ah, ndax daana wax ne ñi koy neexale gi ñëw. dëgg la sa sa sa ma noppee na ci borom baat yu baat yu neex. waaw kay ah. ginnaaw ginnaaw moo ci wut nag ay baat yu yooyu kon war ngeen a xam ne kon loolu lim doon wax kon lu am la. léegi nag ma ne leen nag daarun uddi mi fii ka sa naa yi ab société la boo xam ne sëñ Touba moom moom société bi mooy chef de société bi mm-hmm. employé yi ci liggéey moo leen di tànnal boppam employé boo xamante ne bi ne dox nga ni mu ci war a doxe bu yokk say garaat ñi nga nekkal ci biir société bi liggéey duñ ko yëg waaye ku ci doxewut ni nga ci war a doxee bu lay dégradé mm. bay boo chef de maanaam maanaam directeur bi di sab xarit waaye bu lay dégradé du ko yëg dëgg la waaw lu mel noonu sax xam nga si dañoo wax ne sëñ Abdou Lahad am na ku mas di jàng nii mhm. dañ ne mel baax dem la doon jàng mhm. ba sëñ Abdou Lahad mel na ku daanu di yëkkati ay di ko yónnee di ko xëpp di ko xëpp mhm. ba mu daal jëlaat lépp bëgg koo ñëw jox mu ne ko jëlal ndax mel na ne saaga wala borom tooñ lew na la daane ko ma xamal la ci lëf xasida yi boo ko dee jàng malaaka dañuy wàcc di la déglu boo jàngee ba àggal ñu xool sa xol bii mm-hmm. bu dee dara néew ci lu may yàlla mm-hmm. ak yonent bi sëñ Tuubaa mi ko doon bind mm-hmm. dara ji sëñ tolloon ba muy def xasida googu fa ba mu ko waxee ba noppi weesu na ko moom ne buñ la buñ buñ la dégloo na nga jàng ba àggal ñu xel ñu xool sa xol bi njësal wala bëgg ëdd na lenn ci ñu déglu ba nga àggal ñu dem ñu dem seen yoon ci ay la dégg nga loolu mooy dëggu gi nga doon wax léegi rek mooy dëggu gi xam naa kon ñoo ngi dañ dellusiwaat ci yow léegi sëñ sëñ ah. loolu bayit yu ko tënk uh-huh. mooy wa as bi lan na mm. alayna rabbi aafiyatan waaye nag wahab lana al qasda wahab lana al qasda fi daarayni yàllaahu ak dégg ak dégg du lu am solo la <laughs> wahab lana al qasda mm. mm. fi daarayni yàllaahu ginnaaw moom lépp lu mu jublooti àdduna ak alaxira ñu may ko mm. kon kay <laughs> nit <laughs> jërëjëf leneen amuk jubla waaw amuk jubla macha allah tubaarkalla jërëjëf sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Ousmane mm-hmm. ci leeral yu am solo yaakaar naa yow moom jataay bi <laughs> yaakaar naa xam naa day xaw xat waaye euh, du ñàkk ñu beneen jataay daal boo xam ne moom incha allah loolu rek lañ koy jagleel soob yàlla incha euh, sëriñ Saliou day mel ne yaa ngi dégg siñ siñ siñ siñ li mu doon li mu leeral nga xam naa ni mu ko waxee da ngeen a xaw a euh, waaye yaa ngi doon leeral rek ci wasat yi ak ni ko sëñ Tuubaa dundee te li sëñ li sëñ li doon wax tabbi ci biir loolu mm-hmm. waaye ba tey ñu bàyyi la rek nga àggale fi nga tolloon ci sëriñ bi nag ni mu dundee wasatiya ak ni mu wuuteeg gaa yu baax yi fi jiitu woon hmm. ci ñi doon ëppal ñii di yeesal hmm. ñi nga xam ne ni ma ko doon waxee rek nga xam ne mboolem lu ñuy am ci martaba ki garaat moom am na ko ba ba raw leen hmm. waaye du tax nga gis mukk ak ëppal wala yeesal ci biir mbindam wala mu jàngaleem wala kenn ci ñu mu yar waaw kay jërëjëf sëriñ sëñ Bay Caam <coughs> tubaarkàlla jërëjëf suñu Ousmane fi nga daanale am na solo lool ndax daanaka li nga doon wax rek moom ci lañ ci mooy mooy mooy mawdu bi mhm. mooy digg doomu mhm. ndax daanaka li nga fi wax lépp ñu ëppal rek ñoo ko def mhm. waaw ñoo koy def boole ci loo xam ne bokku ci ngir dàq àdduna te moo ne day euh, ñi ci ne ñëkkuñ seen ngor te ñàkkuñ seen diine li war lépp Sëñ Tuubaa def na ko ci ñoom waaw suñ Moodu Mustafaa dafa waxoon ni ay picc ngi nii yoo xam ne maa ngi leen di dénk ngeen moytu seen jikko mooy am tan ak jàmm jóg ak ndobin ak ginaar daal di wax ni jàmm jóg foo ko fekk day coow rek waaw te la muy coow lépp kii ndobin la wax waaw nee la muy coow lépp njariñam képp moo ca nekk koo xam foo ko fekk ma ngay woote di coow te lenn luy jëriñ nit ñi mm. du ko def mm. Mm. ba ca des mooy euh, ak seq mm-hmm. nee bu génnee ngunu la mën naa génn dem waaye bu gisee gunaaru jigéen ñi rek nee ay cëram damm na amut fenn yitte waaw ñoom rek lay topp mm-hmm. <laughs> ba ca mooy euh, euh, kii jàmm jóg ne day solu ba jekk te du jëm fenn waaw ne day solu ba jekk te du jëm fenn hmm. ba ca des it mooy am tànn hmm. nee na dafa bëgg ndawal hmm. te te te te te nanguwuta euh, maanaam euh, dafa bëgg ndawal te nanguwuta liggéey nee na moo tax foo ko fekk mbëdd rek lay lekk waaw ne as gor su nanguwut a liggéey nanguwut a jàmm a liggéey. foo ko fekk lu xaram rek lay dundee. Mm. li ma wax ni ndobin mm. guutut la mm. waaw guutut foo ko fekk day coow te li ko coow lépp njariñam képp ci la nekk waaw kon loolu dafa am dafa am solo lool ci jàngkati xaside yi ñu xam ko xam ni sëñ Tuubaa xaside yi fa mu ko doon binde euh, da caa sonn lool te ëpp naa fowe ëpp naa rëbbi àddina hmm. ëpp naa caaxaan hmm. ndax li nga wax hmm. ab jàngkat day représenté lu bare bare waaw te jamono ji boo xoolee télévision yeeg euh, réseaux sociaux yi ay phénomène yu bees la ciy fekk waaw ay phénomène yoo xam ne kenn xamul lu mu doon di topp borom alal yi di topp borom nit àdduna yi di leen jàngale xasida di leen cogg loolu dafa mën a ñàkk waaw te yéen ñi nga xam ne yéen jàngkat yi njëkk yi li mënta ñàkk lépp am ngeen ko hmm. lépp am ngeen ko te loolu fekku leen ci hmm. waaw kon nag waxtaan wi waxtaan wi am na solo lool hmm. dañ laa waroon a bàyyi sax daanaka nga far <laughs> àggale <laughs> eh, xam naa damay tënk rek ndax damaa ci lu mel nii waxtaan wu a def waaye ci gàttal eh, sëriñ bi yi nga wax noonu mooy iman islam ihsan ñu koy wooyee tawxiid fiq tasawuf mm-hmm. xam nga tawxiid mooy wéetal yàlla mm-hmm. dañoo dañoo créé benn xam-xam tudde ko mm-hmm. muy science bi lay jàngal tawxiid waaw ba tey euh, fiq euh, ijtihaada dañoo créé benn xam-xam mu lay jàngal islam maanaam ñu tudde fiq taw euh, tasawuf noonu ñu créé benn science tuddi ko ihsaan mu lay jàngal tasawuf mm-hmm. loolu loolu kon ñett yooyu mm-hmm. sëñ Tuubaa ci la sukkandiku mm-hmm. benn bu ci nag nag mu xool ñi ci gën a digg doomu mu ànd ci ak ñoom waaw parce que imaamul Malik euh, ni ñuy wuti xam-xam da caa gën a digg doomu imaam Malik ndax moom dana nangu orfu mooy mooy aada ak umru ahlul madina mm-hmm. moom ni ñuy ni ñuy sàkkoo xam-xam mm-hmm. maanaam dafa teengalul ay mbiram daal ah, waaw te itam mm-hmm. yi suufeelul ay ëpp maanaam yeesalul nga xam ne lu ne dana ko dagana dafa gën a digg doom bu dee ci xaqida euh, xaqida ahlu sunna ahlu sunna wal jamaa par rapport yeneen pas-pas yi nga xam ni boo ca demee dañuy taral yu bari boo defee bàkkaar sax dañ naan la alxadari yoon boo defee bàkkaar dañ naan la yow génn nga ci lislaam génn nga ci lislaam <laughs> voilà boo ko boo tuubee boo tuubul yàlla jégal waaw sëñ bi nag xool li gën a digg doomu mm-hmm. mu mu mu jël ko mm-hmm. kon loolu mm-hmm. liñ ci jàngate rek mooy moom lislaam dafa jël li ci gën teg ko maanaam dafa jël li gën lépp teg ko woote ci nag ba noppi euh, boo xoolee yërmandeem day feeñ ci ay mbindam ndax boo xasida gi mu tëggoon nga xam ni mooy programme u dëkk bi man la bul fosee ni ñaanal ci commerçant yi ñaan fi ndox ñaan fi sécurité ñaan fi euh, képp koo xam ne toog nga fi sax maanaam dëkk ko sax nga xam ne yow amoo loo yëngu sax yàlla barkeel sa dund da gis koo xam ne dana yor lu dul jeex ci dëkk bi mm. naw boppam naw économie am jàpp ne moom la fekk du ci dara. sëñ bi moo ko ñaan hmm. balaa nga koo xam ne nga génnoon tukki. man dem naa ci réew yu bari. Hmm. nit ña la ñuy daj. Hmm. te du tax ñu am saxaada du tax seen xol sedd. dëgg la fi mu ne ñii ñii tukkikat yi. ñu gone yu bari ñu ngi bëgg a tukki waaye tukkikat yi li ñuy daj. buñ sañoon toog fii. di am ab dépasse. àgg nañ foofu. ngir mën a gis seenu njaboot. yow mi nekk biir Touba nag lépp suñ borom da koo jàppandil. loolu uh, yërmandeem la mu wax ni. képp koo xam ni wa kullu man xadamani aw zaara fa yi wax fir lahu aw zaara mhm. képp koo xam ni yaa ngi may liggéeyal mhm. wala nga di ma ziyaare mhm. nga di ma nemmiku di fi ñëw yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ko ay bakkaaram al wisru mooy bakkaar yi nga xam ne day diisal doomu aadama bakkaar la waaye dafa wuuteeg euh, euh, am nañ différence waaw waaw ma nga wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farsuqhu dan aw maala mm. euh, maanaam képp koo xam ni mm. sopp na ma mm. wala muy ñëw ci man mu jeng jëm ci man yow suñ borom maa ngi lay ñaan defal ko ak jub mm-hmm. ak alal mm-hmm. ñaar yooyu moom la nit soxla ndax boo amee alal dootoo soxlaatee jëm ci kenn dëgg la maanaam da nga mën a faj sa yitte ak njubit boo ko amee ëllëg suñ borom dana la da bokk ci ñiy tax mm-hmm. sa jag sa ëllëg jag waaw waaye li muy ñaanal ñaanal ñi ko lim leen i sopp hmm. yéene leen jàmm hmm. lu ko raw lay yéene ñi nga xam ne dañ koo bañ waaw maanaam nim ni mu amee euh, maanaam nga xam ne moom dafa bëgg ñëpp ngir jëmmi yàlla hmm. ni mu ko waxee woon ci naaju bindeef bi na nga koy bëgg ngir doon gim la loolu nag da koo firndeel wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaama nee na képp koo xam ne yaa ngi may ŋàññ wala ngay jël loo xam ne lu ñaaw la di ko yàq ci sama der xam na xam nga ni sëñ Tuubaa nitu yàlla boo ko bañee yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon wala hadisul qudsi man haada li waliyan faqad azantuhu bil harb nee na képp koo xam ni hmm. sama benn nit yàlla nee na sama benn waliyu noonu nga ko hmm. mën nga déclarer guerre hmm. sëñ Tuubaa xam na lor di nekk ci bañ ko moo tax mu ni képp ku may ŋàññi yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga defal ko mu tuub waaw mu bàyyi lam nekk loolu lu yéeme la nga defal ko si istislaam mooy nangul ma hmm. waaw hmm. loolu kenn mësta gis lu ni mel hmm. nit yàlla yëpp mën ngaa gis ku ne waaye gis ñi la bañ ak di la wax lu bon nga di leen ñaanal loolu moom suñ tubaab lañ njëkk ak tam ci ni fa kullu man asa zannahu biya fali yaqallib qalbahu ya rabbiya képp koo xam ne hmm. ñaaw na njort ci man hmm. yow sama borom maa ngi lay ñaan njort lu ñaaw loolee nga wëlbati ab xolam ba mu rafet njort ci man dëgg la nga xam ne kooku agut ci wax sax waaye daal ñaaw njort waaw ñaaw njort képp <laughs> nee na ku ko def maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ñaan hmm. nga nga defal ko nga defal ko loolu loolu mooy li ma doon jàngale mooy wasatiya gi da nga ciy jàngate ni mooy jëflante gi nga xam ni moom la am ak nit ñi ak relation bi mi ngi sàmmonteeg ñi nga xam ni sax dañ koo bañ ak ñi nga xam ni bañuñ ko waaye xëy na hmm. bañuñ ko bëgguñ ko waaye xëy na am na lu lu nekk ci seen biir xol seen jeexe jaaxa gu nekk ci ñoom waaw nga xam ne moom bàyyiwul dara moo tax mu ni hmm. wal takfi nii asaaya azaaya jami aza jamihi alamin mu hmm. def yëpp maa ngi lay ñaan nga fegal ma seen lor mm. waaye nag wal tak fihim asaaya yaa rabbi amin nga xam ne moom su na lor moom ci boppam it waaw man bu dee am naa lor jenn lor joo xam ne dana jóge ci man jëm kenn mm-hmm. yow sama borom na nga leen ko fegal na nga leen ko fegal mm-hmm. nga xam ni moom mm-hmm. dafa taxaw ci xeetu yonent bépp wane ni man maa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxoon ni maay yërmande laa jëm ci ñëpp mm-hmm. loolu da koo feeñal mm-hmm. ni man yërmande laa doon ci ñëpp irham jami al wara yeeg yaa hadiyan radaa kon mm-hmm. loolu ñu doon waxtaani mooy euh, alwasatiya li ci sëñ Tuubaa jàngale bu ma ci doon buñ buñ ci doon buñ ci naa fi la ñuy fanaan ndax lépp léppam mbindam meeg lim bind ak lim wax ak ay jëfam lépp daf ca caaju waaye ci ci ci war a jàngat rek ñun ñun yëpp mooy mm. euh, adduna bi fu mu toll rek mm. ak diine lu mu andi mm. ñu dëppale xool lañ ci sëñ bi jàngal ndax bàyyiwu dara waaw ñu ñu jëfandikoo ko sëñ bi day wax léegi xam nga loolu pédagogie la fexe ba jariñ nit ki loo xam ne xaraamul ndax li mu wax léegi du lu xaram waaye fexe na ba jariñ ci mbooloo dëgg la dëgg la am na nit ñoo xam ne dugg nañ ci ci ci ci lislaam ci lislaam jariñ loolu mooy li a mag waaw ndax euh, euh, aggul ci mm-hmm. xam nga lislaam lépp da ko programme maa mm-hmm. farat naa fil kitaab min shay mm-hmm. naka noonu nit yow xam nga euh, ijtihaad borom xam-xam yi jamono ju nekk luy indi rek dañ fay def dañ ciy def ay ijtihaadaat sëñ Ousmane li nga wax léegi loolu ijtihaadaat ijtihaadaat ndax soxna si nee na la kolong-kolong yi. waaw <laughs> waaw bool bi. xëy na boole woo ko ci waaye am na leneen loo ci boole loo xam. mën naa wecc loola. te aggut ca loola. Uh-huh. te nit ka fexe na ba. Hmm. te te fexe nga ba ba ñu bari. Hmm. mu convaincre leen. waaw convaincre leen. ci xasida yi. Uh-huh. ak ak njàngaleem Sëñ Tuubaa. Hmm. kon am murit foofu la war a nekk. moo xam ka ne ci njàngaleem ka ne ca marché bay jaay. ñi ñi ñiy liggéeyal Sëñ war nañoo góorgóorlu ba. ñu rafetal seen digganteeg mm. seen seen seen mbokki taalibe yi mm. yow miy jaay mm. nga fe feeñal ci ak diggu doomu bañ a jaay lu seer ndax euh, nit léegi-léegi nga def ko loo xam ne dana la ca jàppal loo xam ne yow sax doo ko xam waaw nit mën nga jëflanteeg moom xëy na du la ko wax ker sa dox sa digganteeg ñoom waaye mën na la caa jàppaloo waaye ngir dund am eexti daal daal ngir dund gi yamoo il faut lépp digg doomu waaw même boo gisee sax euh, manifeste manifestation yi am ci euh, adduna bi li ko waral mooy ñii atte dañoo joxul àq ñi ñi atte waaw loolu moo ko waral léegi nag sëñ Tuubaa ni lépp bu ñu bëggee mu jaar yoon teg ci yoon lépp day yem boo ko defee ñu teg ko ci yoon siraatal mustaqim macha allah waaw te joxam sama misaal ñu ngi ñu ngi jéglu bu baax bëggoon nañ sax mu gën a yaatu waaye dañoo jëmaat ci lu ci lu mel nii ñu ngi ñaan nag mm-hmm. jotaay bi mu doon jotaay buñ gërëm mu doon jotaay boo xam ni suñ borom dafay wàcc xéewal wàcc fi njëggal wàcc fi yërmande ci barkeb sëñ Tuubaa ci barkeb ndax ndax fi mu ne nii weer wi ñu ngi ci digg bi waaw ñu ngi ci fukki fan yi nekk ci digg bi al asrul awaasit lañ koy wax nga xam ni ci la lislaam amee ndam ndax mm. euh, xasuwatu badar ci la amee waaw euh, yowmal taxal jamxaan yi mm. ci la xewe suba la war a doon sax suba la ma nga kon suba waaw suba la a doon nga xam ne ci guddi gi mm. ñu ngi ci fukki yi ci digg bi waaw di waxtaane digg doomu digg doomu waaw <laughs> xeex xeex ba taqale woon tamit. li mm-hmm. ñu al al alxarbul la. waaw kay ci la ci la waaw macha allah. waaw maa ngi ndokkeel mm. mboolem. Mm. Euh, ñi nga xam yàlla defal na leen ndam ci alxuraan. Mm-hmm. ndax dañuy wax ni. Mm-hmm. yi amoon. bu dee ci wàllu mbind mi mm-hmm. ka jiitu ka ca topp ka ca mm-hmm. toppaat ba ca ñeenteel ba mm-hmm. ñëpp Touba lañ dëkk Touba lañ dëkk waaw bi den Sénégal def ba jiitu ak ba ñeenteel ba Touba lañ dëkk juróom ñeenteel ba dëkk euh, Poroxaan juróom ñetteel ba dëkk Njaareem dëkk Njaareem macha allah biñ doon def Afrique du Sud Côte ka jiitu Touba la dëkk mm. biñ dem dox Dubaay mm. Mm. ka jël ñaareel ba Sénégal la dëkk dëkk Touba kon loolu sëñ Touba wax ni <laughs> bi may bi may ñëw fii jaraay bi foofu laa jógee jeex na man <laughs> comme li sëñ Touba wax ni jaawartu jaawartullah bi kitaabihi mm-hmm. ilaa duxuli yal janna <laughs> loolu da da da koy firnde muy mm-hmm. dëkkaale na ma ak yàlla ci téeréem bi mm-hmm. ba keroog may tàbbi àjjana daa daa wax ne nu ñuy moomee alxuraan rek yàlla jox na may nañ ma ko nañ ma addi sarax nañ ma ko ko def ah. eh, waaw <laughs> kon li ci firnde yi la bokk hmm. jërëjëf sëriñ Saalix macha allah kàddu yi am na solo lu baax a baax xam naa ñu ngi jaare ci loolu sax day mel na ci njëlbeen lañ ko waroon wax waaye ñu ngi ndokkeel mboolem waa alquran te hmm. waa alquran mooy waa ko sëriñ Tuubaa hmm. eh, ahlul ahlul qur'aani hum ahlullahi wa xaasatuhu te sëñ Tuubaa mooy ki fi nekkal yàlla ak yonent bi kon ñu ñaan xam ñooy ñooñam ndam yi ñu ci am ñu ngi leen di ñaan suñu borom de gën koo yokk te incha allah mm-hmm. noonu lay demee mm-hmm. kon sëriñ Ousmane xam naa dañ lay jox rek nga yëkkati xasida nga xam ne mooy xasida gi ngay tàggatoo mm-hmm. ginnaaw bu ñu rafetloo bu baax a baax nag teewaay bi tey di la la gërëm ci woyof geeg euh, ndax li nga wax rek mboolem qualité yi nga wax ci ne am jànkatu xasida daa war daa war a ne ci moom loolu bu ñu xoolee yow exemple nga ci euh, ndax ku la xam-xam ne ku woyof nga ku baax nga ku ku amu nga te man li ngay def loolu itam nag ku xas man li nga man bu ko neexoon yëkkati ko bu ko neexoon mel na neen waaye <laughs> teew da ngaa xam li nga li li nga doon ak ak fi nga jëm mm-hmm. ak ak li jur nga xam ne bu ko juru day mel ne kon amatul njëriñ mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. di la jox nga yëkkati kàddu xasida gi nga xam ne xam naa mu ngay tàggatoo waxtaan nag moom naa mbokk yi doyluñ ci moom waaye nag <laughs> dañ koy beralaat beneen jotaay incha allah incha allah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 تركت ما كان لي بالبيع مبتقيا ما عند من ليا دياجة لنا فتاه الرساخ يا مليكي لفتا وأبليا ور سغني بكلانا دايخي أسل أجيلا بالبسر ما حتى أقيم لي دين الله أركانا يسر رجوعي ليت باومني وخيني حزر وراولتو لسام إسكانا لك سماء والآراء دي والأوبلا مسارك لأروت من سركوبا أجيب وسل بتاس لمن على سنادي محمد والتهب لبائخا بانا ربي بما يسراه أزهى نخات فجاء بجاه أفدل من لله قد لجاء حمدي لرب الكار من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كله kala شر من قرآنه قراء حدومة المصطفى عن كل ما زدات ولترحم الخلق يا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل الخواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء محوت ما ختناها الخلق من درار بجاه أفضل من لله خاد لجاء محو تما ختناها الخلق من قرار بجاه أفضل من لله قد لجاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke sëñ Tuubaa macha allah jërëjëf sëriñ Ousmane jërëjëf sëriñ Saalih ci njàng mu am solo mi yooyu sëriñ Saalih ci waxtaan bi itam leer gi ak am solo gi ak tege gi ci xam-xam kon xam naa mbokk yi day mel ne liñ ñu jotoon a cëral ci waxtu mat na xam naa kon foofu la ñuy tàggatoo rek di sant baax a baax suñu gan ñi nga xam ne ñoom lañ dalal ci waxtaan ni ñu ko waxee sëriñ Saalih Mbacke mu sëriñ Hamza mu sëriñ Abdou Lahad ngeen dégg waxtaan mu am solo bi fi waxtaan teg ko ci xam-xam indi exemple bare bare bare ci wasata yi nga xam ne sëriñ Tuubaa dund waaye sëriñ Ousmane Diouf lim leeral ci wàllu njàngum xasiida njàng am solo mu fi yëkkati kon ñu leen di jaajëfal leen sant bu baax a baax di leen ñaanal sëriñ Tuubaa mi ngeen di liggéeyal defal leen tawfeex te defal leen ci ngërëmam la gën a sell ci barkeb Seexul Xadiim kon di tàggatoog mbokk yi ci altine ji ñu dëgmal wala talaata incha allah euh, ci ci ci ci seen site yi nga xam ne mooy waar wi TV TH TV Leeri TV ABS Pro ABS Pro ak. Euh, euh, Xidma TV. Mm. Euh, ñooy ñu ñu àndaloon ci liggéey bi di sant bu baax a baax nag techniciens yi nga xam ne ñoo ñoo jàpp ci liggéey ba mu mel nii. Mm. ñaan suñu borom defal leen tawféex. Mm. xiir nu ci ak njub te saxal nu ci def nu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa. te Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ah, ma it euh, rek. Mm-hmm. tàggoo bu dul tàggoo. Mm-hmm. Euh, ndax xëy na. Mm-hmm. xasida yi am na ci fu ñu ci suñu borom yóbbu suñu tur. am ci ay bokk taalibe yoo xam ne tam. Mhm. ñu ñuy béggee ak ay kilifa. Mhm. te xëy na lii ñu bari danañ ko seetaan bu fekkee ñëpp duñ ko seetaan itam. Mhm. Euh, te dañoo am ay soppe yoo xam ne. ñaare ñoom itam euh, jot ci ñun yombul ci ñoom. dëgg benn ñu nekk ci réew yu sori yi. wala suñu euh, jotukaay téléphone amuñu ko. Euh, may profité di leen wax ne sama numéro téléphone. Mm-hmm. mooy 77. 579. 84. 94. 77. 579. 84 94. mooy suñ numéro téléphone. ngir soppe yi nga xam ne. Mm-hmm. dañ bëgg te sëñ Touba rek tax. Mm-hmm. te defaluñ leen dara xanaa dañoo bëgg rek. di ñu di ñu di di jëkkati seen alal mm. ak seen teraanga mm. fu ñu toll di ñu ko jox am na mm. ñoo xam ne duñ la mën a jot waaye bu ñu xamee ne diw xam na la wala nangam rek ñu yëkkati seen addiyee jox la ko ngir sëñ Tuubaa ñooñu faaw buñ toogee am occasion yu mel ni ñu sant leen rek gërëm leen mm-hmm. ndax euh, man ñi ma xam ñu bari xam na ne man média sonalu ma torop ñaare sax léeg-léeg dañ may wax jataay yu mel ni mm-hmm. waaye dama ciy joxe ngànt mm-hmm. ngir rek bëgg sàmm li ma yor ak bañ a bañ a bokk ci yu yu baree bare. Euh, ndaxitam itam ginnaaw yàlla dogal nañ ñu bokk ci ñi ñuy tudd. mënuñoo mhm. tudd ci yoonu murit ay jànkati xasida te boolewuñ ma ci. mënuñoo mhm. dugg Tuubaa it lim fi juróomi jàngkat te boolewuñ ma ci. Mhm. kon fu may teg sama tànk war naa ko xam. ki ma doon àndal di ko roy itam. daan ko aw nga xam ne fu ma àgg tey moom ma fa àggale ginnaaw yàlla muy sëñ xaadim sëriñ xaadim Guèye. kooku mm-hmm. loolu laa jàng ci moom loolu laa xam ci moom mooy conservé wu mm-hmm. fonk boppam sàmm ko loolu la ñu daan digal ba tey jii réccu woon ko kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla mu bàyyi ko fi suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram di sant sopp yooyu ma doon wax léegi mm-hmm. di ñaan suñu borom guddal seen fan te wéral seen i cër euh, coronavirus bi euh, amoon bu yàggut biñ tëjee ñëpp kenn demut fenn dafa am sama soppe boo xam ne mi ngi nekk Medina xam xëy na bëggul may tudd turam waaye nit bu la sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne su la nit defalee loo xam ne bët mën na caa tege nee na bu nopp dégloo war na koo dégg ndeem ngor fekk na ko te loola sëñ Tuubaa tax mu di ko def corona bi dafa dugg si fu ne waaye jëm fa ku ne di lijjanti ji sa bopp man ma toog ci mm. sama kër di jàng samay xasida mm. doyloo sëñ Tuubaa xasida yi moom mu daal ne ma li feek corona baa ngi am mm. bis bu set maa yor sa dépasse barki sëñ Tuubaa xasaay di mm-hmm. bis bu set bu huit jotee ci ngoon mu envoyé ma loo xam ne mën naa ci def ñaari dépasse te bu subaa waate mu envoyé waan ma ko corona bi jeex ma ne ko ah yow kat li nga doon def mun naa ma ne ko ñun sëñ Tuubaa seetaanu ñu teral nañu dem mm-hmm. waaye li nga doon def damaa bëggoon nga nga nga nga nga dakkal ko ndax am na ñeneen ñu ñu am yitte mu ne ma mhm. li ma doon def sëñ Tuubaa tax ma doon ko def te wàññiwuma dara ma ne am bu li ma li ma bëgg nga ñaanal ma ko mooy lépp loo xam ne sa itti la mhm. nga bañ a teel làmb sa poos man may làmb sa poos moom bu seetaanee li may wax moom dina dina xam mais dinaa la ne maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam mhm. te wéral ay cëram mën na ci lim ñu bari nag waaye moom moom ma ma tudd lim ko boole naa ci mboolem ñi nga xam ne mhm. ñi ngi ñi ngi may taxawu mhm. ak ak di jël teraanga di ko teg sama loxo te sëñ tubaa tax mhm. boole naa leen ci loolu di ñaan sëñ tubaa fay leen te teel nu wala réew làqal nu ko fi yàq agul si internet yii nga xam ne ñoom ñoo booloo doon benn di di di taxawee jataay yu mel nii lu am solo la noo ngi ñaan yàlla na yàlla kàttanal leen te dëgëral leen képp koo xam ne nag bëgg nga di di di jaamu yàlla wala ngay bëgg di di gis sëñ tubaa ju wér wala nga bëgg maanaam di dund sëñ bi ak di dund lislaam yu mel nii ngay tàppe ndax youtube moom ab penc la moo xam ne ni ay kër ay kër yu fa yu ne fa nekk néeg yu ne fa nekk néeg bu la ci neex dugg waaye rek waaye dee leen tànn néeg yu baax yi di ca dugg ndax boo lëgee ngeen mën a am jàmm yéen ak seenu njaboot kon nag ñoo ngi leen ñoo ngi leen di eh, wax jërë ngeen jëf uhuh. di sant sëriñ Abdoul Ahad mii nga xam ne këram lañ ko doon defe tey moom murid la mm-hmm. nit ku baax la wax naa ko ci tàmbali bi mm-hmm, mm-hmm. xasida yi sëñ Tuubaa yi ci lañ xamantee waaye ku dëggu la ku nuru turandoom ay jikko la mooy dina jël alalam di ko joxe ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa tax dana takk ndiggam ak der lay yor di liggéeyal sëñ Tuubaa ci ñoo xam ne tey bu ko doon seet ci seen diggante du ko def waaye moom ka ko tax a jóg mooy sëñ Tuubaa kon kon occasion bi ñu am ñun tey mm-hmm. ba ñëw ci euh, ci pàkkam bi toog fi damay dama ko wax léegi na ko émission bi neex na ma lool waaye li may neex neex neex hmm. li ma ci dàqal mooy toog gi ma nar toog ci sa kër gi hmm, yëkkati fi xasida ndax loolu dama ko opté woon man ndax damaa xam lim lim ko jaral kon nag yàlla na la yàlla sàmm sàmm sa njaboot te buñ jugee fii ci jataay bii hmm. bala ñu fee del siwaat déwén yàlla nga yokk ba yëkku ci daraje sëñ tubaa xasida yi lii tax sëñ tubaa préparé taalibe yu mel ni yaw mooy am béréb yu mel nii ak jumtuwaay yu ni mel hmm. ba noppi di ko liggéeyal Serigne ba kooku dañ ko war a ñaanal mu yokk kon yàlla na yàlla jëmee ko kanam kon ñu ngi lay sant bu baax yow itam ci présentation bu neex bu rafet bi ndax borom xam-xam hmm. mën naa ñëw toog yore xam-xam bu bëri hmm. waaye mbedd ma muy jaar ba mën koo génnee présentateur bi moo moo moo koy moo koy moo ko moo ko cay sol bu fekkee yow miy laaj amoo xam-xam amoo pédagogie laaj ki bëgg a développé mënut a développé lu jariñ nit ñi waaye yow macha allah yàlla na yàlla euh, xeeb dolli te nàmm sa xel bu baax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp nag àq di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom yal na suñu borom boole jégal képp ku ci dégg loo xam ne neexu ko mhm. na xam ne ñun sëñ Touba rek nu tax di wax mhm. waaye engagé wuñu kenn mhm. wala ñu wala ñuy jéem a offensé kenn waaye nag liggéey bi day liggéey sëñ Touba te ñun ñëpp a ko bokk te bu defaroo defarul ñun ñëpp te buñ ko jéemee yàq ma wal yaasu bi laa mën nañoo a wal yaasu bi laa ñu bëgg rek ñëpp maase àndandoo di defar mhm. ndax kat kuy naan cib teen mhm. da ngaa war a ñaan toujours teen ba di bari ndox waaye waroo ñaan teen ba kon nag nun ñëpp nañ ko xamee noonu te takkaat suñu digg te góorgóorlu mm-hmm. te bàyyi xel sëñ Tuubaa xasida yi buñ ko defee ñun ñëpp dana jariñu fii mm-hmm. jariñu fan jëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf jërëjëf ci kaddu yi nga daane rek yi am solo la yoo xam ne mënutoon a ñàkk ci jataay bi ñu ngi lay sant bu baax yéete di la jaajëfal ni ñu ko waxee rek léegi rek ci woyof geeg baax geeg lépp ñu ngi lay jaajëfal xam naa sëñ Saliou kon da ngay di ñaan rek ñu yëkkati jataay bi incha allah الصلاة والمطمئنة الله خير من هلاوك الشفاء آمين بك الدواء والشفاء إلهي قتي وعماني عن دمي حمدا له وكلا له خير الحمد آمين أصدر أسواك في الليالي يا خالدا في أحسن الليالي آمين بك أكرمتني إكراما جيب آمين آمين آمين آمين ala